asiin muhjamatan wal kaaf war raaw li raaj wal baay wal babaaw waraaw asiin muhjamatan wal kaaf war raaw li raaj wal baay auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim uh, bokki jullit yi bokki taalibe yi senegal biir réew mi ak bitim réew ñu ngi leen di indil siyaar bu tedd bii ci Daaru Saam waaye nag ñu ngi ko teg ki ndigalul ku tedd kii fi nekk Cheikh Sidil Muxtaar xalifa général di murit yàlla na fi gën a yàgg nun lool te wér taxawu na lislaam bi yëpp waaye jëwriñu kër Cheikh Massamba Diop Saam di Cheikh Abdourahim Diop ndigalam li nga xam ni moo ko yeesal ci la ko dale ci 1926 bi Cheikh Massamba Diop nekkee fii ñu leen di wan muy siyaar bi barab bii nga xam ni fii la Cheikh Massamba Diop nekk ci Daaru Saam ku tedd ki joxe woon ndigal ñëw di fi siyaar si Cheikh Massamba Diop Saam mbooleem ñi nga xam ni ñoo fi jëkk a nekk jëwriñu Cheikh Massamba Diop Saam da ko dale ci Cheikh Mourou Massamba Diop Saam bañu ci topp ba ci kii di Cheikh Abdourahim Diop yàlla fi gën a yàgg ak nun tànd ko wér ak mbooleem ay doomam ak soxna yi di ñi ay rakkam ci kër Cheikh Massamba Diop Sam ak sët yi nga xam ni ñooy ay xalifa ci seen kër waajur ci kër kër Cheikh Massamba Diop Sam kon siyaar bi ñu leen di wan ren la fii ci Daaru Sam di juróom-ñeenti fan ci janvier 2016 waaye ñàkkul da dégg ci biir kàddu yi ay témoignages ñu am lu ñu ràññee ci Cheikh sàmm Diop Sam waaye àjjuma ji ngeen gis nag tey mu tàmbalee ko siyaar bi ku ne xam na ni fii mooy bisub jullit àjjuma ji nga xam ne dañ ni bu ci gaaw bi kooku ngeen seen di Cheikh Bassirou Diop noonu la mboolo yu sa fasanti jóge ci barab yi lu mel ne Touba ak biir réew mi fenn fu ci nekk bàyyi ko nañ fa ñëw nañ tey fekk si jullit àjjuma gi ci biir jumaa ji ci Daaru Saam nga xam ne dañuy waajtaaye nag conférence bu guddi gi boo samaan setee nag di bésub siyaar bi ngeen gis mboolem fu ñu fi egg danañ leen présenté wax leen la fa nekk waaye lii de Cheikh Massamba Diop Sam jëfam jum jëfal jëflanteeg Cheikh Amadou Khadim ba am pay gi tey jii siyaar bu tedd bii nga xam ne ku tedd kee ku jëkk a digle ba ñu di ko euh, màggal ni di ko dundal kon am Diop te mat ko sëkk yal na gën a yàgg ak noonu ci lool njaal benn nga ba fi ñu toog moom duñ guddal ci kàddu yi dan koy jox laaj Baye Sam laaj nañ bis bi ni mu toll fi mu ne te xam na ñi njaal bennoo woon na xëy na ak sew ndax wax nañu sëñ sama Diop moo noonu neen ko tàmbalee ci tëbu muus tëbu muus kon dangeen ko àkkaa comme gaynde kon na xam ne tëbu muus moom soriwul gaynde it bari na doole yaatu na it kon Baye Sam cant gi ak bis bii yëlla ji ak ñi ko sosan ak niñ ko doxale ni mag si fii ak ndigal li ko dooran Baye Sam yow mi bokk ci jëwriñ yi tey jëwriñ ji mag ji ci daayira Mubaarak ñu ngi lay laaj daal bi nu mu tëddee Sam Diop bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullah ñu ngi leen di nuyu ci di leen siyaare te di leen baal ak te di leen baal ak tey ñaane te ndaje mi yàlla ko suñu borom boole ci yëm gën a gërëm ñu ngi sant yàlla ginnaaw bu loolu wee ndaje mi li ko sos mooy. sët yi 1997 lan daje woon wax ne dañoo bëgg a defal suñu maam bis ñu waxtaan ci ba juboo ci ñu de dem ci sëñ Abdou Samad laaj ko ci ndigal na ko ñun de dañoo amal yéene yi wutal suñu maam bis bis bi ñu ko bëgg a te mooy bis boo xëy ne dañ koy def lépp muy alxuraan. lu yendoo ko jàng alxuraan xasida bu ngoon jotee nu yeewi ñëpp. ñu fekk sëñ Abdou Samad Dërë Diop 1997 mu jox nu ci ndigal bi mu ci joxee ndigal mu commencé liggéey boobu ci 1997 ba le 2 février 1998 ci leen njëkk a def màggal gi fii ci Darou Sam boobu itam wax dëgg yàlla wuute ne ak léegi ndax booba ñu baree bari wuy guñ ci nii mu demee booba gars yi ñoo ci nekk di kii ak waaye booba daal wax dëgg yàlla am nay jafe-jafe lool waaye dañoo xam ne rek lu lu lu dëggu rek. bu yàggee rek wér te sax. looleen moo neex métier yi dox di ca dox di ci dox ba yàlla dogal teel bi yeeg bokk yi ñëpp wuy si nu ci. ba léegi ginnaaw yàlla liggéey bi lépp. mën naa ne lépp ci loxoy teel bi yi la nekk. ñun daanaka defatuñ ci amatuñ ci luñ ci wax amatuñ ci def lépp même ci loxoy teel bi yi. kon ñu ngi sant yàlla bu baax tey ñaan itam ñu daje ci ngërëmal sëriñ bi foofu daal lañ ci toll woon ci wàllu wax waxtu wuñ ko sosee. ba demee ba euh, fin mille 2006. ci la sëñ Abdou Samad wàcc liggéey yal na yàlla yokk leeram taas nu ci barkeem ci mille 2007 bi ñu laaj sëñ Abdou Wahab moo fi nekk ñu daan yeesalaat ndigal li ci moom mu joxewaat ci ndigal wax ne la fa nekkan rek dara sëxu ci dara soppikuwu ci léegi nag ñu continuer liggéey booba bu ñu demee ba 2014 it moom it su borom wàcc ab liggéeyam yàlla wàcc ko mu wuy ji mag ña ñu yeesalaat ko ci jëwrin ji fi nekkal Cheikh mu Mou Diop di sëñ Abdourahim ñun ñëpp nu maase yaa naanal ko yàlla yàggal ko fi te may ko wér ba yéene ji nga xam ne am na yéene liggéeyal ko waajurum wa yàlla bàyyil ko fi kartanal ko wéral ko ba mu mën koo liggéey na mu ko bëggee can ànd koog donga yi teel bi ak njaboot gi yëpp booboo léegi nag ñu ngi ci nekk ba boobaak léegi daanaka at mu ne gën gaa néew daal ci li ñuy jàng ci ay euh, limu euh, kaamil yi gën gaa néew daal ñetti junniy kaamil ak lu topp moom da koy mat li mu xasida yi nag moom ñaare naqari naa xayma lépp léegi nu ëddi yàlla ko sëñ Masamba Diop ak njaboot gi. ñu waxtaanee ci ñetteelu at ba. ñu dem ci sëñ Amsatu ko di ko yëgal léegi. bu leen ko waxate ak cant nee leen dee leen ko wax siyaar ndax euh, fàttalikuwaat baat boobee sëriñ tubaa digle woon fa njéeréem ndax nee na Serigne Touba dafa toog fa njéeréem ni digal naa képp ku ma yaakaar nga dem siyaar ji sëñ ma Masamba Diop. soo ñëwee danga ma fa fekk wala bala nga faa jóge ma fekk la fa mu ni ma kon seen bis bii ngeen jagleel sëñ Massamba nan ko duppee bis boobee nga xam ne ci la sëñ Touba digli woon siyaar boobu ci Daaru Saam loolee moo waral baatu siyaar bi mu mu mu si te xam ne kon loolee sëñ Touba digli woon loole la ñuy màggalaat di ko yeesalaat bi bisu tey jii ginnaaw loola comme leer na ma ngi dolliwaat santaat ñi nga xam ni ñoom laa bokk liggéey bi ca ban ko àndee ba léegi wax dëgg yàlla fëkkasta lu ñu ci genn wet ñu ngi leen di sant ci di leen jaaf ji jaajëfal bu baax a baax di sant itam télé bi yi nga xame ni ñu ngi ciy jàpp ci saaxir di ci jàpp ci baatin ndax ginnaaw yàlla lu fi am rek yàlla ak seen jëmma yàlla ak seenu taxaw ak seenu jëfa kon nag loolee itam ñu ngi leen di beral ak cant di ñaan ci barke sëñ Tuubaa ak sëñ kenn ku ci ne lu mu ci def rek yàlla suñu borom fulal la ko defal la lépp muy ak njëggal ak tuyaabam ci barkeb sëriñ Souhaïbou sëriñ Maka Ba di ci wàllu nun donga yi mu jëwriñu mboolem donga yi macha allah sëñ Cheikh léegi ngi nii ak sëñ Moussa Ba ñëpp ci jëwriñ yi lañ bokk ak yeneen jëwriñ yi nga xam ne ku mel ni sëñ Mor sekk ak jëwriñ bu ñu demee ci waañoo dañ leen limalal foofu ci wobu jotaay gis ngeen Cheikh Abdoulaye Mbacke ibnu sëriñ Souhaïbou moo teew noonu moom ngeen si noonu waaye mboolem njabootu kër Serigne Touba gépp kenn ku ci nekk rek sa ndaw teew na fi sa jëwriñ teew na fi Cheikh Abdoulaye Mbacke moom Serigne bu moom ngeen seen noonu. li ko dale Cheikh Moussa al Karim Cheikh Mouhamadul Fadilu Cheikh Mouhamadul Amin Cheikh Mouhamadul Basir Cheikh Abdoulaye Mbacke Cheikh Ibrahima Mbacke Cheikh Abdoulahan Mbacke Cheikh Abdou Khadir Mbacke Serigne Salihu Mbacke Cheikh Souhaibou Mbacke Cheikh Abdou Samad ba ci kër Cheikh Mourtala ak mboolem soxna yi kenn ku ci nekk kër Serigne Touba ak mboolem seex yi. ah kon nag kuréel boobu ngeen seen ci guddi gi nag ñu ngi bëgg a dugg nag ci conférence bu mag bi nga xam ni sëriñ Mbàkke Abdourahman borom xam-xam bu rafet bi te sell la moom la daayira mu baar ak jël ànd koog mboolem kër sëñ Masamba Diop saam gépp mu fas leen fi yéen a leeralal lu yaatu ci wàllu diineel lislaam ndax Cheikh Masamba Diop kan moo noon man de shariha jëmuma aqiqa jëmuma xam naa buñ duggee ci buntub liggéey ba la ko dalee ci sasu mbay wa ak yu bëree bëri da ngeen xam ne Cheikh Massamba Diop day a jëmoo ci wàllu liggéey waaye bu ngeen ñëwee fii ci jullit jumaa ji ni neen ko jàllale woon ak waxtaanu seetlu yu fi bëgg a waxtaanee da ngeen xam ne itam ba day sariha jëmu ko kon noonu mu ko waxee woon jëf ja wax dëgg yàlla wax ji dafa ànd ak jëf ja kon da teewlu guddi googu nag sëñ Mbàkke Abdourahmane la ñuy bëgg a teewlu mooy def conférence bi ci guddi gi laata samaan set yàlla tànnal jullit ñi mu nuyoo boo xam ne làmb na lépp lu ab jullit di yittewoo ci boroomam njaal benn bi di jàmm digg bi di yërmande mujj di barke mu tëbbe ko ci sunu xol boole ci ab siyaar boo xam ne dañuy ñaan suñu boroom subhanahu wa mu tollale ko seen daraja noo ngi jiital ci nuyoo bi saahibul fadila Serigne Touba Cheikh Sidil Muxtaar Mbakke di ko ñaanal sunu boroom gën ko fee yàggal te defal ko wér bu ànd ak wérle di nuyu bu baax ak siyaar ak ñaanal boroom dëkk bi di Serigne Abdourahim Diop mi nga xam ne moom la ñuy sëriñ Serigne Massamba Diop Samb mi nekkoon ci barab bii te nekk fi woon ndigalul Serigne Touba nuy ñaanal Serigne Abdourahim sunu borom gën a guddal aw fanam dolli ko ak wér ak kàttan ba mu àggale yéenéem ci liggéeyal waajuram di nuyu bu baax Serigne Souhaïbou Diop mi nga xam ne mooy président de Nuuru Daayiratul Mubarak di nuyu Serigne Sam Diop di nuyu mbooleem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 alhamdulillahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin wa alihi ajmain mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu maa ngi leen di nuyu yéen mbokk yi fi teew yépp ak ñépp ñuy dégg sunu kàddu di sof samay wax ci waxi sëriñ Omar yi mu wax léegi ci nuyu kilifa yi ñaanal leen rawatina kilifa ak béréb bii di sëriñ Abdourahim ak ñi mu jaboote ñépp di ko jaarale ci daaira bi nga xam ne almubaraka ñoo taxawal mbir mu am solo mi ni ko sëriñ Omar waxe léegi ngir fàttaliku ñu jara fàttaliku ndax ci fàttaliku leen ci la ñuy defar sunu tey ak sunu ëllëg ñu ngi leen di siyaare baax a baax yéen ñépp di jokk wala réew yi ma séq ak yéen ak mbokk gi di am mbégte lool ci dellu fii ci Daaru Shaam fekk fi ay mbokk ay wëllëre ay xarit ci biir ñooñu nag am ci ñett ñoo xam ne faw tudd seen tur du tey laa ko njëkk wax ndax dafa am lu ma boole ak ñoom ñu jàpp ko ma jàpp ko muy sëriñ Jiili sëriñ Cheikhuna ak sëriñ Mouhamadul Bachir dafa am lu ma boole ak ñoom loo xam ne ñu ngi koy dundal cenam gën a rafete kon bu ma ñëwee ci seen biir njaboot fekk leen fii dinaa seereel mbokk yi seen mbaax ak yiw ak bëgg lu baax bu ma xam ci ñoom maa ngi leen di nuyu baax a baax te di leen siyaare di leen ndokkeel ci xew-xew mag bi di ñaan sunu boroom ci mbaaxam ak yërmandeem bépp yëngu buñ fi yëngu yàlla ko yàlla nangu te jotal ci mag ñu baax ñi tax ñu di ko yëngu ñoom ñi xalloon waar wi ba tey lislaam bi jolle ci béréb mi dundal fi diine dundal fi ak taalube ba tey leere lislaam di fi takk di leeral yeneeni barab yu bari Sëriñ nag wax na léegi li ñu bëggoon ñu waxtaan ci ay nit bu ñu bokkee mbir moo xam ne ca la seenu dafaru tey ak ëllëg nekk mbir mooma war nañ koo fonk jox ko xaqam saa su ne ñuy xool ba xam ma ngay jëm kanam wala day dellu ginnaaw war nañoo xamit bu amee lu ca rax te bokku ci lu mu lu ko ci dugal ak nu ñuy def ba mu génn jàpp naa ne loolu waxtu wu ne war nañ koy bàyyi xel ci mépp mbir mu am solo ñun nag tawfiq lañu am bokk ci ñii wuy si wooteb sëriñ Touba radiallahu anhu nii ko sëriñ Omar Kane muy woote boo xam ne borom bi subhanahu wa taala moo ko ko santoon ci jamono ju àdduna lëndëme mu soxla ku ko leeralaat nit ñi fàttale woon jàngaley sëriñ bi mu bëgg ñu delloo si waat loola sëriñ bi taxaw ci kenn ñenewoon ci ginnaawam su wootee ñu wuyu ko borom penc mii kenn la ci ñoom ku ràññiku ku fés muy sunu maam ju tedd ji di sëriñ Masamba Diop Sam radiyallahu an kon moo tax ma bëgg ñu waxtaan ci jàngale sëriñ Touba lu waral léeg-léeg ñoo xam ne fii lañuy juddoo ba màgge fi xëy xëy mel ne da doyatul ba tax ñuy wuti leneen walla bokk woote yu bare yi am ci biir yoon bi te bokkuñ fuñ jëm ñenn nit nag suñu bokkee lu ñu wax ne moom lañ te bokkuñ nu ñuy doxee bokkuñ nu ñuy waxe am na ca koo xam ne la mu wax wérul kon war nañoo xam ku ci wér yi wax ak ku ci wér liwul koo ci xam ne aw doxinam noona la ak bu noonu ndax ku amuk seetlu mbokk yi gi bàyyi xel yëngu bi lu ne ngay dégg ci biir yoon xeet yëngu gune ne ngi fi am nit ñuy tuddoo lu ne ñu ngi ndax ñoom ñëpp ñoo ne ci dégg ndax ñoom ñëpp ñoo tënku ci li sëriñ bi woote woon sëriñ bi de lu leer nañ ñi la fi indi ni bëccëg yoo xam ne mag ñi ko gisoon bàyyi lañ jàppoon lépp ñëw ànd ak moom bañ tàggoog moom dañoo dem fa ñu nekk doon fa moom doon fa sëriñ bi sëriñ ma sàmba mii kenn la ca ñooña daa ñëw fii doon fi sëriñ Tuuba di defar di fóot nit ñi di leen duy ndax ñooña lañu nekkoon nit ñi tey li ñuy woote ca loola lañ nekk walla ci leneen lañu nekk jàpp naa ne lu mat a dellu di xalaat la balaa booba nag danañ tënk jàngaleem sëriñ bi da koo tënkoon ci ay mbir yu leer yoo xam ne buñ ko xamee beneen yëngu buñ dégg wala woote ñu mën a xam ba xam nag an nekk na ci biir woote sëriñ bi wala nekk yooye ba ci njëkk sëriñ bi ak rabbaniya la doon woote mooy woo nit ñi ci yàlla njariñul àdduna mësu koo tax a jóg matière walla matériel mësu koo tax a jóg ñi doon woo ñépp yàlla leen doon doye ña ko wuy si woon ñépp it yàlla lañ ko wuy si woon woote yàlla la woon moo tax nitug sëriñ Tuuba xamul intérêt àdduna ci ay yëngoo li wolof yi wax njariñ loo fekkee taalubeb sëriñ Tuuba du dund loolu moom day dund ne nit ki daawar a amal njariñ ñëpp fax dem humoo turran li wajhillaahi loolu lay teg ci kanamam looy def jëmmi yàlla nga cay seet boo ca yaakaaree ngërëmul yàlla lu la ca mën a fekkit danga nga ci yëngu kon wooteb yàlla la lu ci waaye di yëngu bu yàlla taxut wàcce nga yoonu sëriñ bi sëriñ bi danaa ko faral di wax ñi ko wuyu woon jàngoon nañ ba xam jàngoon nañ ba xam ay jaamukati yàlla lañu woon it bari na ci ñoom ñoo xam ne it mbooloo ngi woon ci seen ginnaaw fa ñu bàyyi ko woon ay kilifa lañu ma Masamba bi misaal la ci lool waaye mar yàlla moom lañ defoon gis ne seen mar woowa dex gi ko gi leen ci mën màndal mooy sëriñ Tuubaa ñu bàyyi lañ jàppoon bàyyi seeni daraja ak lañ amoon wuy ci Sëriñ kon ñooña ay njariñ njariñi àdduna taxu leen a wuy ci Sëriñ kon nag ci loolu bépp woote boo xam ne njariñ yi àdduna lañ cay diggee ña cay wuy si àdduna tax ñu wuy si ca kañ cay naw àdduna lañ lay nawee loolu du wooteeb Sëriñ loolu lu mat a xam la mbokk yi sëriñ bi ci yàlla lan woo nit ñi moo tax lépp lu mu doon leen digal da leen di wax ne def leen ko li wajhillaahi taallamu l ilma li wajhillaahi duuna al munafasati wa tabaahi tàmbalee ko ci jàng leen waaye nit ñi daan nañ jàng ngir yeneen bëgg a doon imaam bëgg doon qaadi bëgg yi ñuy séddale ci dëkk bi ñu la koy jox sëriñ bi ne déedéet jàngi leen ngir yàlla ak rabbaniya mooy lal lépp lu ñuy def ci ron sëriñ Touba saa bu ci jógee nag na ngeen xam ne sëriñ Touba nekkatu ci loola te léeg-léeg nag ñu gis ci biir nit ñi ñoo xam ne seen nattuwaay yépp mooy am amu àdduna diw daal kilifa la gu mag a mag ndax lan bu ñuy wax li tax ñu ne kilifa la ay bien yu am la tudd sëriñ Tuubaa radiyallaahu ay bien taxu ko woon a jóg ndax poñitum àdduna lu mu rëy rëy ci suuf lay mujj ndax wa yi alladi fawqa turaabi turaab suuf lu ci ne ci kawam rek suuf lay mujj doon yu ñàkk solo yu jeex yooyu sëriñ Tuubaa yooyu mosu koo tax a jóg te woote yi bari nag bari na ci yoo xam ne lañ lay wax lépp madda la am na nangam boo ko wuysee am nangam daal defal nangam boo fa yàggee def nangam sëriñ Tuubaa woote wut ngir àdduna noonu yàlla yi bu dee àdduna ñoo ko ëpp la ñépp ëpp leen alal ëpp leen i pexe te téewut ñoom ñépp ñi mattum sawara boo ëllëgee kon loolu taxutoon a jóg sëriñ bi beneen tomb bi mooy wooteeb sëriñ bi woote bu diggu doomu la ab pul yeesu Sëriñ Tuubaa soxlawut ku ëpp soxlawut ku yees moo taxoon mu ne wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin waqsita bul ëpp bul yees waaye na nga sax ci dégg bi te mooy sax ci sunna kon sëriñ bi daf ñoo wowoon ci ñu ne ci digg yoon wi jàng jàngaleem boo ci tënkoo deesu la xebet waaye deesu ne da nga te yàlla nag bëggut ëpp bëggut kees bëggut ëpp bëggut yees Sëriñ Tuubaa bëggut ëpp bëggut yees woote la boo xam ne day bàyyi xel nit ki ci xolam pas-pasam yaramam am xelam lenn lu nekk mu jox ko xaqam xam nañ ne fekkoon na fi ay wootekat yoo xam ne ñenn ñi dañuy ginnaawal àdduna ba dara duñ ko am ci àdduna mel ni ku dëgmal yàlla kese loolu lu baax la de waaye sëriñ bi nee na loolu doonul la li gën mooy dangay boole àdduna ak alaxira jël àdduna daf koy tool liggéey ci lu lay jariñ bu alaxira ndax wala tan sa nasibaka min ad-dunya kon wooteem bi mu diggu doomu boo ci jafandoo sa àdduna day jag sa àllaaxira ja waaye danañ gis ci biir it ne bari na ci mbooloo mi ñoo xam ne diggu doomu googu toppatuñ ñenn ñi dañoo ëppal bëgg lu baax ba tax nga ba àdduna sa jamono jëpp nga jàpp ne jàkkaa ko moom génn ci mbedd walla dem ci ab ja yàq waxtu la fekk sëriñ bi moom ne jaamu yàlla ak liggéey dundal adduna ak àllaaxira defar sa ruux ak saw yaram yooyu la nit di boole nekk nit ku équilibre ku sotti su ci benn manqué doomu aadama ñi dootul nekk nit ku sotti moo tax wooteem bi mooy woote bi gën ci woote yi ndax daa diggu doomu daa bàyyi xel nit ci ku séq yépp lëngalul genn wet bàyyi gi des woote bu mel noonu nag ku ko xam bàyyi ko fi am na leneen lu ne ci yow lu dul bëgg baax rek lu mat a bàyyi xel la moo tax ba benn naar bi mu xoolee sëriñ bu yàgg mu ne ko njub gi nga indi mooy njub goo xam ne ci digg bi la nekk ëppul yeesul yow bokkuloog suufiyanke yi nga xam ne dañuy xatal xatal ba kenn du mën a dund ci àdduna waaye bokkulook fuqahaw yi nga xam ne dañuy yaatal ba daganal lépp hidayatuhu qasdun ida dayaqa alladi tasawafa jahlan aw tawassaa dul fiqhi loolu la ko mbokk moomu melale woon moo yor woote bi na ci digg bi tënku tasawuf it lan woote nag tasawuf mooy dundu lislaam ci anam gëm gën a mate anam gëm gën a rafete anam gëm gën a mate anam gëm gën a rafete mooy lis booy tasawuf jàmm yàlla cëram gën a mate waaye wàcce sa bopp ànd ak nit ñi ba ñépp amul nongu ci ñoom jikko yi nga xam ne day taqal nit di tax mu yées ñu fóot ko ci bom seen wicc ndax nit dana am xam-xam dana doon jaamukatu yàlla bu ràññiku waaye du ko tey ñaan du ko tey bëgg àdduna du ko tee naw boppam di ñeneen ñi ak yenn jikko yu suufe yoo xam ne ci tasawuf rekk lañ ko mën a saafara sëriñ bi yooyu la indi woon dajale ko jox ko mboola wax nag ne woote bi ci ñetti kennu la taxaw muy xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ak ay teggi ñett yi ci la sëriñ bi lal yoonam xam-xam bu am njariñ jëf ju baax ay teggin al ilmu naafic wal amalu saalix wal adabul mardi kon kuy dund yoon wi te ber wala bëgg a xeeb wala woyofal benn ci ñett yooyu rek wàcce nga jàngale Serigne Touba Serigne Touba yoon wi yoonu xam jàngal nit ñi yar leen ba ñu xam-xammee xam lu leen war seen digg ak seen borom loolu moo jiitu ci jàngale Serigne waaye yoonu jëf la nag du ay xam-xam yooyu nettali mokkal ko te dundoo waaye yoonu jëf la li la lislaam di sant ci lu baax boo ko jàngee ba xam koy daa bëgg nga di ko dund ci say cër mu nekk ci sam xel nekk ci sam xot waaye jëf jooju nag day ànd ak i teggiin teggiin sa digg ak sa borom teggiin ci sa bopp sa yaram waaye teggiin sa diggante ak sa moroomi jàmm yooyu ci la sëriñ tubaa tënk wooteem bi bàyyi loo xel nit ñi tënkoon leen ci bu ci nekk nag waxtaan wu yaatu la mën a doon waaye xay na tënk lañ ci mën a def waaye nañu bàyyi xel daal ne yoonu sëriñ tubaa yoonu xam-xam la ku ngeen dégg muy suufeel xam-xam mbaa mu di ko woyefal mbaa di ko ginnaawal wàcce na yoonu sëriñ Touba te mel na ne sëriñ bi xamoon na ne nit danañ ñëw ginnaaw bi di woyofal xam-xam ba taxoon wax na ci wax ju rëy yoo xam ne taalibe bu ne war na koy dégg sëriñ bi noon képp ku leen tere sàkku xam-xam leen di woo lu mën a doon ci ay mbugal la leen noon na képp ku leen tere sàkku xam-xam moo wuutu iblis ci kaw suuf si lu fi iblis naroon yàq moom moo ko moo yàq noonu na ku leen tere sàkku xam-xam lam leen di woo ak sànku la ak réer la wa man nahaakumu an ittaallumi fa innahu yaquudukum linniqami wa man man nahaakumu an ittaallumi fa huwa xalifatu laini almujrimi fi kulli ma yufsiduhu wallahu jal xasibuhu yowma aljazai walwajal foofu la nekkoon kon yoonu xam-xam moo taxoon mag ñi it fuñ mas a sañ ay daara lañ fay sañc daaru saam gi daara la joo xam ne borom dafi doon jàngale di yare yar gi it mooy jëf sëriñ bi fekkoon na fa ñuy jàng ba wonu lef waaye mën a mel nu ne mu ne moom soxlawut xam-xam boo xam ne borom du ko jëfe ndax ku xam te jëfe woo mbaam muy sëpp ay téere yéen a yam mu indi yoonu tarbiya buy tàggat cër yi ak xel yi ba li ñu xam lay jëfe kon yoonu jëf la jaamu yàlla moo jël ci jëf xam na fu mu waxoon ne liggéey bi léggéey bi benn la mooy jaamu yàlla yeneen yépp day dimbali jaamu yàlla leneen lu ñu def lu ne ngir mën a jaamu yàlla tax ñu di ko def nañ jàng ndax ñu mën a jaamu yàlla nañu liggéey ndax ñu mën a jaamu yàlla sëriñ bi jaamu yàlla bañ na ko ba li ko dàqal ci luñ koy wooyee mooy di ko wooyee abdullahi wa xadimu rasul al abdul xadim moo ko dàqal ci tur yi mu am yépp kon bëgg na taalibe yi doon ay jaamukat yàlla jàmbaar yi ne woon ci ronam yépp ay gawari jaamu yàlla lañu woon mbër muñ mës a fem xool jamono ñoo la mën jaamu yàlla ñoo lay man ci kaamil man la ci jàkka ja doon la man ci tool ku mel noonu mooy nitug sëriñ Tuuba mbokk mi sëñ Mbàkke Abdourahmane hmm. dafay laaj loo hmm. na wala nan bi seet ki ngeen ak ñu dégg ko nit ngeen saxal bi ngeen ñaar ki dénk ak ki dénk saxante boo xam ne ñu ngi amee ci lu ñëw maanaam bu juree tey man mi la ko dénkoon maa ko moom yow bala ngay am sañ-sañu am day juraat moo leen di laaj gis suñu islam ci loolu. waaw kay jërëjëf oustaz ñu ngi sant mbokk yi. ay laaj lu am solo la rawatina loo xam ne nit ñi dañ koy dund bu fekkente ne ki ñu dénk jur gi mooy jël alalam di dundal jur gi su boobaa dëggandu ndax ku ne daa joxe alal ngir di ci seenu bénéfice te xamul danaamam du am amma bu fekkee nag dalaa jox juram jox la la koy dundal nga xam ne liggéey bi nga ko def loolu sañ na ne bu juree mu jël neexal la neexal xaral bi ci am lislaam nangu na ko sañ nga ne kaay jaayal ma sama mbubb mi saa yu jaree may la ma jox la ci nangam soo wëree wër jërut dangay ngay ñàkk loolu am na xaral bu ci nekk waaye lislaam nangu na ko ndax nit ñi dañ ko woo naka noonu kon jur gi bu fekkee ne borom jur gi mooy joxe dund bi waaye daal saytu bi la yor suba sañ na ne ko saa bu juree ma jël bu juraatee ma neexale law loolu sañ nañ ci lislaam am nag moom muy nga xam ne mi ngi feree ci jur gi ngir lu mu ci judd lu mu war a am di ko fayoo loolu daganu ndax xamoo dana juróom den soos loolu daganut mhm. mhm. yonent bi alayhi salaam moo ko tere li ñuy wax madamin ak malaqix ak xabalul xabala ci la bokk lislaam day tere jënd ab ëmb ndax xarar la ndax dana juddu ndax bu juddoo dana dund leerul loolu tax lislaam di ko tere lislaam day tere jaay ab ëmb négal ba mu juddu ba nga gis ko ngeen waxaale ba juboo amma lu ne ci biirub ndeyam dëgganut kenn di ko jaay dëgganut kenn di ko jënd so dafa man ne lu da lu nekk ne fekk duwul ci lislam bu dagal ñu ko jaayante ak ñu leen mbokk ñu topp euh, nee na day laaj ak yéefar bu dee jekk ab julit di ko jox alalam islam lan la ci ndax mën na koo jariñ ci àdduna mën naa yokk alalam mën na koo sàmm mën na koo taxam wér gu waaye yowmal xiyam du ko fa jariñ ndax wa man yakfur billahi faqad habita amaluhu loolu bis penc la waaye fii ci àdduna nag jëf ju baax mën na fa jariñu yéefar ah, jariñ hmm. lu lu baax nga fekk pas-pasu gëm yàlla lëlu ko dafay mhm. fekk ko def ci lu am njariñ ki ci topp day dafa mel ni lu indi ay ahadis yu bëri di sàkk ci ay maanaam mhm. hadis bu njëkk yi dafa indi hadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di wax ne mhm. du denc nattu ab wala am nattu du denc ab jullit bu gëm wala jullit bu jigéen bu gëm yàlla su boppam wala ci njabootam wala ci ay doomam lu dul rek natt boobu dafa sabab ci moom ëllëg bu dajee yàlla dara ci bàkkaar nekk ci moom mu ne nii sàkku leeral ci maa ngi zarul balaa bi mu ngi waaw hadis bi li muy wax moo di ne am nattu yàlla nattuwul jaam ngir mbugal ko day nattu jaam ngir teggil ko ay bàkkaar wala ngir yéege ko ay maqaam moo tax ci masaaliku jinaan maanaam xadis bi sëriñ bi wax na ko ci nee na yowmal xiyaam ñi dara juttoon ci àdduna ñu gisee ñoñ balaaña dañ leen di ñee danañ mébét seen yaram daggatoo ndax xéewal yu rëyee borom nattu yi am maanaam doomu aadama ju yàlla nattu ci àdduna teg ko ay wéradi dinay ay doom muy muñ ci kaw mu muñ bu yowmal xiyaamee lépp yiw lay doon dafa bëgg wax ne ab jullit ci ay nattu la yéegee yonent bi salaam noonu na ku yàlla namm ci moom yiw teg ko nattu waxoon na ne it ku la gën a baax ëppale nattu yonent yi ñoo gën a metti nattu seen ginnaaw ku gën a jub yaay gën a metti nattu ndax nattu yooyu yàlla da ci yokkee maqaama da ci wàcce ay bakkaar kon ay yiw la la bëgg a wax rek ku yàlla teggi nattu na ko muñ te xam ne yiw la ah, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne bu ngeen amatee néew ku faatu na ngeen ci gaawal bi maanaam denc ko xëy na ndax bu nekkee ni nit ku baax dafay gaaw ko dem ci aw yiwam bu nekkee keneen la itam dafay mel ni aw ay woo xam ne da ko da ngeen ko gàddu seen aw loos yenn ko war leen a gaaw lool mu ne mi ngi laaj maanaam hadis boobu xadis bi day digle ni nit ab jullit bu faatoo la gën mooy nañ ko gaaw denc nañ ko gaaw denc jébbal ko boromam su ngant amul nañ ko gaaw denc jébbal ko borom saa bu nit faatoo rek la gën mooy nañ ko denc moom la wax ne bu bu dee ku baax la woon yi waa ngi koy xaar ci bàmmeel bu leen ko xañ yeex a yóbbu gi bu dee koo xam ne ci safaan la nekkoon safaan musiba la gaaw leen tàggale ko moom bu dul dara yit xekk yi bokk na ca nit yàlla daa bëgg ko suturaal te yéex a denc mën naa waral sutur su xottiku ab julit dafa am sutura xayyan wa mayitan moo tax yàlla bëgg ko ko suturaal ba bu faatoo bokk na ci sutura si nag gaaw a denc kon bokk na ci li ñu sant ba ab julit faatoo ñu gaaw ko denc. su tàmbalee su tàmbalee man dara maanaam su demee ba tàmbalee man dara nga gis ne am na njariñu saa yi ñu daal di ñu daal di romb xel mooy nit daa war a xam ne gone dañ ko war a jàngal yar ko yar bu mat njàng mu egg yar bu mat waaye koo xam ne yaa ngi koy jàngal sotteegut yar bi nëppeegut nga dagg ko bu ëllëgee lu ko dal yàq teg ndax mooy ku ñuy defar te nëppeeguñ ci moom mooy tëwagut kenn su génnee luy këfe lu ne mën na koo këf waaye ki ñu nopp ci moom mooy ndab luntu bi ba mu fees lépp loo ci bëgg a sotti day tuuru ndab nag bu feesut lu dikk sotti ko dugg ci biir loolu waral ku jaar ci daara nga dégg ñu jekki-jekki ne leneen la rabkat yi am na ci ñoo xam ne ci ay daara lañ jóge xam nga lu doy war la nit ku jóge ci daara ñu ne ot na alxaan mbaa sori na ca amul mécc mu mécc wu loolu darab nekk ab rappeur mooy ne dégg defar liggéey bu agut la comme ndab li feesul nag leneen lu ñëw mën dajee sotti ko kon jur yi nañ bàyyi xel ne ab sëriñ buy defar day duy su feesee ba mu delloo la ko moom leneen lu ñëw lu bu dikkee day day tuuru ndax fees na ba noppi mooy koo xam ne fu mu dem mën naa ñami jaxasool mën na leen soppi waaye ñoom dañ ko mën a soppi loolu lu am solo la waaye dagg ko nag mooy jur lu ñu la waxtaane léegi nga génn ñeneen soppi la ndax seytaane jëmm la waaye daa bari ay soldat yu koy jàppale di ko liggéeyle xëy na doon gi mu farat fee fee mu nekk jàmm lay laaj seytaane jëmm la ju yor ay melo yu bari mën a dem fu ne waaye am nag ay soldat yu bari yoo xam ne am na ko ci jinne yi am ko ci nit ñi sayaatul jinn am na sayaatul insi am na kon ku bari doole la koo xam ne ku ci mucc yàlla la musal ma waral julit war a fonk aoudu billahi min asheytaan rajim loolu sëñ Saliou Mbàkke daal mos nañu ko wax ci benn siyaare bu ñu ko siyaare ji woon mu ne ñu seetlu naa ne nit ñi dañuy fàtte seytaane te lu yàqu lépp mooma te neen alxuraan saa boo duggee saa boo fi duggee foo romb gis suñu borom di tudd seytaane bëgg ñu muslu ci moom nee na sëriñ bi it xasiida koo dugg fekk ci loola waaye day mel ni dañ ko fàtte nee na ngeen bàyyi xel seytaane di ko fàttaliku saa su di wax a bari lu ngeen di wax aoudu billahi mina sheytaani rajim loolu sëriñ Saliou mos nañu ko wax kon jëmm la waaye ju bari ay soldaar yu koy jàppale ci li muy liggéey liggéeyam bépp na yàq la euh, ndax dina tax nga sañ a def plan yi maanaam diiru ñaari at yi muy nàmpal maanaam comme ñaari at yooyu moom may nañ ko

aywa li man araada la wax an yuti marada man na ko bañ a mat bi ci des mi planifié wu planifié moom lenn ko war a maye ci lislaam mooy wéradi wéradi képp mooy tax lislaam may nit mu def ko parce que planning lañ koy tudde waaye taxdiid la mooy yemale am njur la te ab jullit wër te yemale njuram yàlla xam ñi am njariñ ak ñi ko amul yàlla xam ñi dund ak ñi dul dund nit ñi bu ñu bëggee noppalu dañuy bàyyi seen bopp yàlla doom ju wërta juddu du juddu moom doom ju wërta juddu du juddu te jaxasoo du ne mooy tax am doom jaxasoo taxut am doom bi ci des it plan plan yi ñu wax nii wóorut léeg-léeg nit def ko ñaari at jeex mu bëgg mu dañ mu dox ca continuer mënut am doom loolu jigéen ñi xam nañ loolu ndax tubaab yi ko liggéey yi ñu koy jumtuwaay yi ñu ko liggéeyee mënuñ ko assurer à 100 pour cent bi ci des it mooy jullit yi nañ xam ne pexe tubaab yi. ñoom ci àdduna gëstu nañ ba xam ne joxe nañ dele yoo xam ne nañ bu ñu ci àggee jullit ñooy ëpp ci àdduna li ko waral ñoom dañuy juri doom ñun nag dañuy planifié léegi pexe yu ne ñu ngi koy def ngir li ñuy tudde xosuba ak jàppandi am doom gi mu wàññi ko ci nit ñi ci zoro fi mel noonu nag ab jullit lu ko yàlla may ci doom na ko jël peine perdue amu ci doom bu judd woon tey faatu yiw la bu jàpp mu ko ne doom day juddu faatu bu juddu woon faatu rek am nga yow te yonent bi nee na ku faatu la ñetti doom tabi aljanna kon ak xéewal la goo xam ne ku ko yàlla jox na ko jël yu bari li ñu lay doo ko mën a yar doo ko mën a def nangam yépp ay waxu yàqu la ñi gën a yaradiku ci àdduna benn seen ndey ak seen baay lañ kon mbir mi du ne bu doom yi baree doo ko mën a yar bu dee buñ baree doo ko mën a dundal dundaloo sa bopp bay dundal njaboot gi ñin yàlla leen yor te wa min dabbatin fil ardi illaa ala llahi rizquha adduna li indi xiif mooy ñaar ñaar fi indi xiif ñàkk liggéey walla séddale bu baaxul waaye li yàlla wàcc ci kaw suuf lu yor mbindeef yaan fi buñ nangoo liggéey génne ko te ñenn ñu ngar dajje wuñ ko bàyyi ñi ci des ñëppay dund kenn du xiif su tawsia wala ñàkk liggéey muy indi xiif ci àdduna waaye du ne doom yu bari loolu baax na nit ñi xam ko ku feebar nag ba xam-xam saxal na yow am doom baaxatul ci yow sañ ngaa dagg sa njur ndax sàmm sa wér gu foofu dong lañ ko mayee. loolu daal moo am seddale bi mën naa nekk ndax saa boo xamee ne mag ñi dañuy wax ne ku yàlla jox lu la ëpp bëgg na nga bàyyi xel ñeneen maa li ma bëgg wax ci loolu mooy fii ci Sénégal ci misaal suuf seeg jaww ji li fi nekk lu mën a dundal ñi fi nekk mi ngi fi bu fi xiif amee mooy dañoo béyi wut ba génne li ci suuf wala dañ ko bay ñeneen tëj ko dañ ci ko joxuñ ko ñuy des loolu nag nit ñooy xam ba xam lu ci am ndax dañoo béyut walla dañoo béy tëj ko ci ay magasin li nga tranché waaw. mees de moom. bala maa wax man jigéen ñi ñi koy jaay lay njëkk wax ci lislaam dañuy tere jaay loo xam ne amul benn njariñ anam amul genn anam guñ ko war a jëfandikoo ci anam gu dagan loolu mees ci la bokk misaal mi gën a leer booy jàngale ne loo xam ne mënisu su koo jariñoo ci lislaam mooy mees ndax jog kawar dong la man te jog kawar daganul kon jaay ko daganul defar ko ngir di ko jaay dëgganut bu ko usines yi bàyyi woon jaaykat yi bañ koo importe di ko indi jigéen du jokk mee kawaram kon ñooñu ñoo njëkk am tort bu ñu jàllee jigéen ji meesu na bàyyi xel ne saa boo jokkee sa kawar sangu jot boo sangoo setoo ci sobe nga taxawal gu dégg bëccëg booy jullee baaxut booy tudd yàlla yaa ngi ànd ak sobe di tudd yàlla ndax nag kawar lu ñuur kawar ci gudd jar na dëkk sobe loolu rek doy na mook ay émail yëpp a yam yu bon yooyu nga xam ne nit ñaa koy def di ci sonal seen bopp te boo xasee émail yu jërutu ngay jàpp loolu jullit jàpp naa ne ab taar jëru ko te bokk na ci li gën a mën a aar ab jullit mooy laab seytaane dafa tilim bëgg fu tax moo tax yu alayhi salaam daana wan ak sax boo fi dugg nanga nga tudd yàlla ba la ngaa dugg boo yeexee boo duggee fekk fa seytaane kon kuy taq sobe na jàpp ne toujours bi nga ànd ak seytaane te bokk na ci li dimbale ci taq sabay jokk kawar bu dee meesu nag ah, xeesal moom ñëpp xam ne baaxut der wi la yàlla jox mu lay sàmm di la aar nga teggi ko ngir lan kan moo wax ne xees moo gën ñuul wala moo gën rafet ñuul rafet am nis bii la mbokk yi tubaab yi weex sax ñi ngi bëgg a ñi ngi dem ci naaj bi di lakk ngir bëgg a wàññi seen weexaay yow mi ñuul nga di ko soppiku dafa mel ne doomu aadama moo bëggut li ci yàlla bindi kenn ku ne na nga mel yaa ngi moytu bañ mel noonu loolu nit day bëgg gëm boppam tawféex la am der bu ñuul der yi gën a dëgër ci der yi mën a gën a mën a dékku aw naaj ak i metit mooy deru nit ku ñuul te jigéen nag daa leen dénk laraf yi waxuma la xeesal waaye ñàkk muur saw yaram xam-xam saxal na léegi ne am na benn gëstu ko ci anglais yi wax ne am na canceru der woo xam ne naaj wee koy joxe te yaramu jigéen bu ko dul sàng lu bari man naa xëy dal ko kon ba yàlla wax jigéen nañ muur seen yaram bi awra la kenn xamutoon lu tax xam-xam saxal na tey ne day joxe cancer peau ñàkk muur sa yaram bàyyi ko ci naaj wi nañu xam ne kon leen lislaam digal seen njariñ rekk ci nekk yu yuxarrimu alayhim alxabaais yuxillu lahum altayibaat wa yuxarrimu alayhim alxabaais diine lu mu digle yiw la lu mu tere lu bon la kon nañ ko bàyyi xel rafet jikko la rafet mooy jikko taxut a sëy taxut a am borom kër ñaata nit ngeen gis ñu juddu di xeesal ba faatu kenn mësu leen takk gis nit koo xam ne day ñuul kukk ba noppi saa bu saa tasee amaat borom kër mooy mbir yi newut ci ay xees ak ñuul ndax ñii bëgg nag kenn ku ne ak loolu yàlla tànnal am na ñoo xam ne lu ñuul dong lañ bëgg am na ñoo xam ne lu ñuul dong lañ bëgg. kenn ku ne melal ni la yàlla binde li am solo mooy fexeel bay set di laab li ci des yëpp solo li ci des nag li la yàlla muur la nga muur ko kawar gu gudd ak xees xam nga ko fi indi complexe bi ñu tubaab yi colonisé nit ku ku ko ku ko not ku ne dalay ragal ñu xool tubaab kawar gi gudd yaram der wi xonq ñu ne kon ku mat nii ngay mel looloo fi indi nit ñi tàmbalee ñuulal di jokk seen kawar ak di xooli seen der kon faiblesse la mbokk yi laaj moom solo kii def ne ndax kii nga xam ne dañ ko ruural ci toolam wala ci mbayam mu jàpp jur ga ko ruural léegi mu lekk loolu mu fay la ko sañee ci gis-gisu lislaam ah daa jàpp jur gi tee waaw daf ruural borom hmm. ruural ko jàmm hmm. borom tool bi jàpp jur gi hmm. bi borom jur gi mu ko jur gi jóge laa tànk joxuma nangam mu jox ko nag war a doon waxee. waaw borom xam-xam moo war a xayma maanaam li kii foofu rek mooy mu waxal boo xam ne nag moo may jox waaye ku xam mën naa xayma la jur ko yàq ci tool bi waaye nag ci lislaam mbokk yi yàqu bëccëg dañuy wax ne jur lu mu yàq bëccëg borom tool baay ñàkk lu mu yàq guddi boroom jur gaa war a fay. bëccëg nit ñoo war a sàmm seeni tool. guddi borom jur yi ñëw a tëye seen jur loolu mooy atteb lislaam su bëccëgee yéen borom tool yi sàmm leen seen tool bu guddee yéen borom jur yi téye leen seen i jur ku ruur guddi na yaa tooñ ku ñu ruurul bëccëg nag yaa sàggan. kon léegi ni ñuy def rek ngir jëkkanteeg waxtu bi Serigne Souhaïbou Diop. di kenn ci délégation bi Serigne Bassirou Diop xalifaab Serigne Moudou Massamba mi ñu séddee bés bi moom lañuy jox kàddu gi Serigne Souhaïbou Diop. sëñ Modou Diop Massamba sëñ Modou Diop Massamba saalix la ba mbaa ko tuub bal dañu ko noppi defum mbaa amul suno jumaa moo صلى إليه الملك ربيا فوق العفو إلى الإنسان كل الله يسبقه bi yéen yi yéen waa daayira bi. dégloo dégloo. ñu ngi wax ci kàddu sëñ Bassirou ngi leen di nuyu di leen sant ci jagleel gi ngeen jagleel sëñ Moodu mu sëñ Mbëgg Masamba bis bii loolu xolam seetlu na ci biir lool nee na dafa xaw a waaye kon day toog fii. jot leen cant ak boppam ciw làmmiñam waaye nag yabal na fi ay rakkam suñu yàlla ji jiite ko ak i rakkam yu jigéen ak i sëtam sëti sëñ ma jóom na sàmba yi fi nekk yëpp kon bis bii ngeen ko jagleel bis la boo xam ni mboolem ko fi toog ci sant Jóob soxol sedd na ci ndax kiñ ko jagleel bi fi sëñ Massamba Diop di jóge wóof na njaboot gépp mag ñi nga xam ne ñoo ko dara itam xam nañ loolu gone yi fi judd it xamal nañ loolu ndax ñot nettali lañ leen ko kon bis bii sëñ Modou yayoo na ko lool sant nañ leen ci bu baax a baax a baax li ngeen ci yéene li ngeen ci bëgg yéen a ko xam yàlla li ko sëñ Massamba defal kon cant dafa mënta weesu sant waaye sëriñ bi nee na fu sant di tàmbalee cantam tàmbali na fa ba fu mu fa yan cant yem yegg na fa ci kaw cant kon li ngeen sumb ci wàllu sëñ bi ci daayira bi di ko ci bëgg yàlla na ko sëriñ bi defal ñoo ngi ñaan ci doole sëñ mujj ma sàmba ku fi teew ci bis bii ak suba ak jàmm yéene joo fi indi ak ku bëgg yàlla na ko sëriñ Tuubaa defal waaw lépp lu fi waaye ragal itam yàlla na ko suñu borom dàqal ci barkeb sëñ ma jóob ma samba jërë ngeen jëf cant dafa mun tawee sant sëriñ bi li mu wax lépp damaa lott ci ban ko wax waaye kon dinaa ko dinaa ko mën a ta bu ko doon mel ni fàtti dama koy tari wax leen ko waaye nag lott naa ci wax jërë ngeen jëf yàlla nañu ko yàlla te yàgg teewe ci jaay jaay bi jaay Cheikh na Amadou Khadim barke sëñ ma jóob ma samba يا بلاد الله ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci yonente bi sant si ahmadul xadim mi wax ni musal naa sama ñoñ ñëpp ci balaab adduna musal leen ci balaab alaxira sëriñ Tuubaa mu nga xam ni te balaab adduna mooy lépp luy dox luy dox luy dox diggante nit ki ak jaamu yàlla balaab alaxira mooy lépp lu koy teree jot ci ngërëmul yàlla te mooy lu koy teree jot ci teraanga yonente bi alayhi salaatu wasalaam yaa mu terale ñooñam ëllëg te mooy aljanaam yooyee Sëriñ Tuubaa moomu dafa wax ni man dey làq naa mbooleem la nga xam ni arawoon na gaa yu baax yépp ci bayit bi mu wax ni awaytu ma hawaahu saabixun wa jaani xawmun muraafiqun mooy yàlla toftal ma mbooloo moo xam ne sama liggéey du jeex te amul fu muy yem te mooy mbooloo mu yanu ba yenniku ñeneen yanuwaat bokk na ci ña yoon woon nag kenn ci borom dëkk bi bokk na ci fa mu yenn ko ci kër Serigne Touba mooy tànnal ko dëkk wutal ko ñooñ bokk na ci barab bi ñooñ ñi mooy ñii nga xam ne ñooy dundal bis bi bis bi nag am sabab su yàlla dafa def bi mu jógee di liggéey li borom daf ko tànnal ñooñ moom Cheikh Ahmadoul Khadim sëriñ Tuubaa ànd ak waajuram wa comme ni ko mag ñépp baaxoo defe ci lislaam mooy kenn ku nekk nga sàkku ngërëmam ci moom ba jot ngërëmam yàlla doog laa ubbil bunt ci taxawu lislaam yeesal ko bi nga xamee ni ni ñu ko xamee ci bunti kër doomi soxna yëpp mu ànd ak waajuram ca paataar ca li nga xam ne ci la sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali nekkoon yor ay donga samp daari alxuraanul karim di leen liggéeyloo ñu ànd ak ñoom ngir yaatal lislaam mu ànd ak moom mbokk na ca li mu féete woon ci moom mooy di ko taxawu ci alxuraan ji di ànd ak njaboot gi ci liggéey bi ba yàlla dogal waajuram ñëw fii topp leer yi lislaam yooyu ba ñëw ci wali yu baax wi nga xam ni moom la fekkoon fii te mooy sëriñ Mbàkke te mooy sëriñ Mor Batoor Sarr sëriñ Mor Batoor Sarr moom mu nekkoon boroom xam-xam bu ràññee ko lool nitug yàlla ku wér bokk na ci firnde yee sëriñ Mbàkke moo rànt sëli fépp fu mu ànd ak sëriñ Tuubaa dem fa leerug yàlla fa nekk nga xam ni mën nañoo wax ni lépp loo xam ni ci lislaam ci ak taalube ci ak tërbe ñu ngi koy defal sëriñ Touba defaloon na ko waajuram bayal na ko tool yoral na ko daaree alxuraanam sant na ko ca sant ko gën nag ba ñëw saam saar gi fi la dajante ak Serigne Massamba Diop Sam ci li gën a dëgër ci li ñu nettali Serigne Massamba Diop Sam moom it wax nañ ni sant woon na waajuram may sa Zenaba bi mu bàyyi ko ni xëj jama gii ba dem fëre ñuy wax daru lay ci ni mu gën a siiwe ñu wax ni mooy kër nijaayam ci daaree alxuraan jëm fa yoroon foofee fa la nekkoon moom it di taxawal la nga xam ni moom la sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali doon taxawal ca Paatar ba wàcc fa liggéey ñu denc ko foofa sëriñ ba jot toxalaat daar ji indi ko fii sanc ko Paylin di jóge Paylin nag ñëw Saam Saar foofu la yàlla njëkk jata dajale seenu jataay ba ni nga xamee ni noonu la toppee jeexiti sëriñ ahmadul xaddim ba dem paataar te foofu it ab sew sew am na fi ndax sëriñ Mbàkke Mor Anta Sali mbooleem li ëpp ci mag ñin la wax ne fekk na ko paataar mbooleem ñi nga xam ni demoon nañ paataar sëriñ Mor Anta Sali lañ fa fekk woon waaye sëriñ Masamba Jóob Saam bokk na ci ñi gën a dëgër ci ñuy wax ni moom ba mu demee ci sëriñ Tuubaa la dem bi mu demee it moom la laajte moom la gisit dégg naa ci sama waajur mu nettali ni moom de sëriñ bi ba mu ne ko analu la tax a dane ko man de yaa ma yëkkati mu ne ko analu wut mu ne ko damaa bëgg ku ma mënal lu ma mënut booba xamagun baatum njëbbalu waaye loolu mooy jébbalu rek te xam nga ni sëriñ Massamba Diop Sam ñi ngi wax ne 1851 52 la te 77 lañ sañ ci 1877 lañ sañ ci Mbàkke Kajoor ci gëstu yenn yi kon xam nga loolu am na différence kon ànd nag sëñ Tuubaa ab diggante ñu doog a taxawal yoonu murit mu laxasu ànd ak sëriñ bi ci ni ko ñëpp ndefe rek ba jot ngërëmam mu dikk si samp ko ci barab bii ngir yaari mbir moo di mottali kóllëre gi doxoon digganteem ak sëriñ Modou Batoor Sarr ndax wax nañu nee na ko dama bëgg boo demee nga soow saam saar dox lu tollu xelu fas samp fa say néeg am na ñuy dana ko dangay jàng yeesin fu yeesin jeex nga samp fa say néeg ci ñaari xisa yooyu lu ci mën dem mooy barab bi bi mu sampee fii it daane ko na boo demee nga wattul ma barabu sëñ Mor Boto Sarr boobu ngir sàmm kóllëre googu barab baa ngi nii suñ kanam kon bokk na ci li ko indi fii mooy sàmm kóllëre googu doxoon diggante digganteem ak Serigne Mor Boto Sarr bokk na ci li ko fi indi it Serigne Touba ku masa yeewi gërëm la dalay wax ne la am nga ngërëmul yàlla am ngërëmul yonante bi am ngërëmul am sama ngërëm la tahsan wala tawjal fi nafsika wa fi xiyaalika jamihan wa asalullah tabaraka wa taala yarda anka waxaan jami xiyaalika lu yéem lu néew nag ndax gërëm naa la gërëm sa njaboot moom day na waar te gis naa ci lettre bi nga xam ne moom la bind sëriñ euh, maam Thierno Birahim lettre bi nga ko gërëmee ñaari baat yi ñëw na ca te ñëwaat na ci lettre bi fatim nafsan wa harainan ñëwaat na ci bi loolu nag bokk na ci lëkkale gi sëñ Tuubaa lëkkale woon seen diggante ñoom ñaar ba tax na kóllëre googu moom dundal na ko ba bi mu wàcceeb liggéey moom sëriñ bi sëriñ maam Thierno Birahim la fi yebal moo ko taxaw sabab si tax nag ñu taxawal liggéey bi bokk na ci li Sëriñ Tuubaa doon wax surriyatan tayyibatan tujaddidu nahji nabil Mustafa sëriñ bi moo waxoon ni na ñëpp dem siyaara gis sëriñ Masamba Diop Samb nee nañu nee nañu wax nañu ni teg na ca ni ku fa dem fekk ma fi mbaa boo nee fi danga ma fekk la waaye lu ci man dem moom ngërëm la rek moom jamono bu nekk Sëriñ Tuubaa nga fa ndax ngërëm loolaa tax du fa jóg benn yoon kon loolu lu ci dëgër la surriyatan tayyibatan tujaddidu nahji nabil Mustafa ba ñu doxee ba yàgg ñuy taxawal liggéey bi ci ahfaadi seex sëti sëriñ Masamba Jóob Saam yi lëkkaloo ànd ak dongo yi ñu jiital ci ci ndigalu sëriñ bi sëriñ Saam Jóob ibnu sëriñ Abdourahim alxalif ci njiital donga yi sëriñ màkk Ba ci njiital soxna yu jigéen yi soxna Bintu Jóob Bintu sëriñ Mut Jóob Masamba ñu wax ne naa yëkkati seen kàddu santal leen mbooloo mi ñuy jiital ci cant gi sëriñ alxaaji Diop mi nga xam ne mooy kilifa ak jataay xalifatu sëriñ Mbàkke Jaara mu teewe fi ñaari jataay benn bi ki nga xam ni moom lañuy ñu tudde bis bi di sëriñ Mut ma Masamba moom ku ne xam na ni mat na sëkk lépp maanaam sëriñ tubaab moo ko yar ba noppi ci moom comme ni mu ko defale woon waajuram jox ko digal mu ñëw fii ànd ak waajuram li des ci ab liggéey ba mu wàccub liggéey mu wutu ko ci liggéey bi yépp kooku lañ tudde bis bi moom la sëriñ Mouhamadul Fadilu Mbàkke waxoon ni bi mu wàccee ab liggéey wax nañu ni seere na ci kàddu yoo xam ne dafa wax ni biñ ko ko yëgalee dani moom de liggéey bi la yëgle ji rek ndax wax nañu ni ajuma ji ci jëkk te sëriñ Mouhamadul Fadilu waxoon ni nañ may gan ñi julli jiwu ko ajuma ji ci topp moom la julli ji la set soin la set so la set joojee ci la julli ji jenn ajuma la jëlal julli ji jenn ajuma laata jeneen ajuma ji wàcc na liggéey loolu tax ñu wax ni sëriñ Mouhamadul Fadilu bañ ko le mu daan ni moom di liggéey bi lay yëgle ji rek te am na ku ma net la ci kilifa yi nii am na jataay boo xam ne sëriñ Mouham sëriñ Fallu amoon na ko ak sëriñ mat jub ma sàmm moomu ginnaaw bi lëggéeyu jumaa ji àggee nee na ko sëriñ Muudu de man ngaa xalangu foofu jumaa la ñu doon lëggéeyloo te lëggéey nañ jumaa moo tax jënn ajuma jënn ajuma la ca julli daal di wuyu ci boromam mu ni day yëgle ji liggéey bi rek loolu day na dara daraja doy na martaba li ñu jubloo xam ne ci moom gan gi nga xam ni mooy sëriñ Mbàkke Abdourahman ndax wax dëgg ci moom sax laa waroon a ubbee jataay bi ndax moom liggéey bi lépp moo ko amee woon moo ko taxawu ci wàllu xam-xam ci wàllu diine jàngale fi njàngale moo xam ni bu ñu ko digloo bind yu mat sëkk la ñoo ngi koy sant te xam ne li ñu ko doon taamoo te doon ko sàkku ci moom rafet na ci anam gi ko indee yépp yàlla nañu ko teewaat déwén yàlla yàlla barkeel liggéey bi yàlla na ko yàlla nangu yàlla na nu yàlla def dëgg dëgg taalibe bi sëriñ Massamba Diop Samb lépp lu ñu ko liggéeyal yàlla na tàbbi ci liggéeyam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh gis ngeen convoi yi yaa ngi noonu fenn fu ne ñu ngi fay bàyyikoo di ñëw ci siyaaru Daaru Saam bii nga xam nag xëy si nañ suba gi teel gis nga nit ñaa ngi tàmbalee ñëw penc maa ngi tàmbalee fees béréb bu tedd a ngi nii boo xam ni tedd ki ci boppam ci 1926 ñàkkul déggoon ngeen noonu sëñ Saam tàmbalee leeral ci bis bi ci boppam ak li waral cosaanul bis bi déggoon ngeen ko ci kàddu sëñ Saam Diop mii jëwriñ Daaru Mubaarak di président bi waaye gis ngeen mboolem mbooloo mi ni ñu tàmbalee walwale di ñëw ndax ku tedd ki moo waxoon ni dem leen siyaare ci Samba Samba Diop Saam foofu ci Daaru Saam muy Daaru Saam gii ngeen seen gis ngeen wote yi ngeen mbooloo mi kenn ku nekk rek yaa ngi fas yéene fekke si mboolem biir réew mi ak bitim réew fenn fu nekk ay kaar bàyyikoo na fa ak i mbooloo yu fasantikoo ñëw gis nga penc maa ngi noonu fa la tàmbali fees dell Masamba Diop Sam néeg boobu ngeen seen mu jàll léegi fi la Cheikh Masamba Diop Sam wàcce liggéey ñibbisi ci barab bi waaye kooku ngeen seen nag mooy jëwriñam ci kaw suuf fi mu ngeen seen muy Cheikh Abdourahim jóob da ngeen dégg ay témoignages ak waxtaan yu yaatu muy xalifa bi yàlla na fi yàgg ak nun lool ànd ak mboolem njabootu ma Masamba Diop Sam mi ngi noonu muy Cheikh Abdourahim Diop fatuwaar kàlla taxawu na kër gi taxawu na lislaam bi lu baax rek ko ñor loolu Serigne Saliou loolu lislaam de omo ceeg defar omo ceeg yàq waaye Cheikh Abdourahim mii ngeen seen yokk na yaatal na mboolem li magam yu baax yi fekkoon liñ fi taxawee woon kalla gën na koo yaatal fii mooy kër Cheikh Massamba Diop Sam liggéey na fi liggéey bu rëy xam naa da ngeen dégg ci ci siyaar yi da ngeen dégg mboolem kilifa yi nga xam ni yëkkati nañ seen i kàddu ci seere ci kër Cheikh Massamba Diop gis ngeen néeg boobu moo doon néeg Cheikh Massamba Diop bi mu nekkoon moom la Cheikh Abdourahim di ko yeesal nii muy chantier bu mag boo xam ni da ngeen xam ne liggéey bi li ci bëriwul waaye ku ci dugalal saw ñaq ak ku ci sàkkoo dugalaat liggéey baa ngi noonu mooy chantier boobu ci kër Cheikh Massamba Diop Sam ñu koy yeesal Cheikh Abdourahim di ci woo ñëpp kenn ku nekk yéeneen saw ñaq dugg ci nga barkeelu ci am ci njëriñul barkeelu bi da ngeen seen penc maa ngi noonu gis ngeen jumaa ji ak mboolem barab yi nga xam ni moom la ñuy siyaar ci penc mi ci fi ma Massamba Diop Sam nekk moom ngeen seen noonu sëñ Thierno Diop mii moom ak ki mboolem sëti kër Cheikh Massamba Diop Sam waaye mboolem ak ay rakkam da ngeen leen seen mooy muy ko tedd koo xam ni lu baax rek ko ñor ñu naa ko sëriñ Ceerno Libi xam naa li nga xamee ni maamam ju baax ji Seex Masamba Jóob Saam xet ma rek ko ñor di liggéey looloo waral kon bu demee ba Libi yaatal fa lislaam bi yaatal fa yoon bi taxawaay bu sell boobu mooy tax bu ngeen gisee mu ñu naa ko sëriñ Ceerno Libi yàgg na lool Libi waaye mi ngi fii euh, di ku baax koo xam ni muy sëriñ Ceerno Libi moom ngeen jàkkaar noonu muy ku baax koo ne lu baax rek ko ñor kon sëñ Thierno mi ngi noonu ci di sëriñ bu Diop ngeen seen ko moom itam mooy yor kàddu Cheikh Abdourahim Diop mi xalifa bi moom itam di ko sell koo xam ni euh, tubaarkàlla taxawaayam rafet na lool moom itam moo jiite daayira Mubaarak sëriñ Sam Diop mi président bi topp ci moom ànd ak moom liggéey bu sell yaatal liggéey bi bu baax a baax ci biir réew mi ak bitim réew mboolem mu Mubaarak yi kooku doom doomam la muy sëñ naa waaye mboolem ay ay njabootam moom sëñ Sohibou Diop moomu yéen nañ ko seen ci wetam Ah, ñi seen fii ak kuñ naa sëñ Matar Diop di jëwriñ ju mag joo xam ni sëriñ Fallou àndaloon sëñ Fallou Diop ba ni mu nekkee ak sëriñ Soye bu nii. jotaay bii ñu toog ak Cheikh Soye bu Diop fii ci Daaru Sam dëkk Cheikh Massamba Diop Sam mu ciy jëwriñ nga xam ne moom mboolem daayira Mubarak mooy jëwriñ ji waaye di jëwriñ ji Cheikh Abdourahim Diop mu teg ko suñ kanam. nee na mi ngi nuyu mi ngi siyaari ñëpp waaye mooy nuyu ñëpp dinu dolli parce siyaar mooy dolli ko Cheikh Soye bu Diop. nee na mi ngi sant mboolem bu baax baax ci teew si gi. di sant mboolem press bi. ku fi ñëw. képp ku fi ñëw. ngir Seex Masamba Diop. ngir Seex Masamba Diop. sëriñ bi fay. nee na kon nan bokk am pay sëriñ bi. suñ borom fay suñ borom fay nu ci barke sëriñ Touba. barke Seex Masamba Diop. barke Seex yal na yàlla boole jubal. yàlla boole nu jéggal. bàkk sëriñ Touba. yéen a ngeen jëf. waaw. ah buntu kër bee bu ngeen seen nag mooy kër seex Cheikh Basirou Diop Cheikh Basirou Diop moo du ma sàmba Diop Sam waaye ñàkkul nag ci biir kër gi dangeen ngeen seen Cheikh Basirou waaye dangeen ngeen seen mu feggoo ak rakkam ak njaboot gi njabootu kër seex Cheikh Massamba Diop sëñ ma Massamba Diop Sam. ndax tur yi daa xaw a niroo waaye sëñ Modou sàmba Diop Sam mooy ki njëkk a wóotu Cheikh Massamba Diop moo tax sëñ Basirou Diop mii ngeen seen moom moomu ngeen seen mooy xalifa sëñ Modou Massamba Diop sëñ Modou Massamba Diop nag moo njëkk a toog toogaayu euh, sëñ ma Massamba Diop Sam ndax sëñ Mor su Diop ma doon taaw ba dafa teel dafa jiitu sëñ ma Massamba Diop waaye sëñ Modou Massamba Diop moo njëkk a toog waaye kon da ngeen seen noonu Cheikh Basirou Diop ci tabeem gi sellam gi ak pasteefam bi ngeen seen magi taalibe yee fa nekk. waaye ñàkkul ci kanam tuuti da ngeen dégg ku def ay leeralu yaatu ñu naa ko sëriñ Bayti Sey gis nga Cheikh Basirou Diop mi ngi noonu mbooloo yaa ngi siyaare nekk ak Cheikh Basirou Diop muy ko tabe ku yéwén ku dëggu koo xam ni baat yu lay wax la ne fi moom la lay daal di wax sàkku nga jariñu ngeen bokk jariñu suñ borom nangu ndax li li am solo ci kilifa mooy wax la lu lay jariñ moom na dana la wax lu lay jariñ moom nee na boo déggee baax na boo déggutit Basiru moom wax li ko war waaye moom Cheikh Bassirou de moom foo ko fekk day Pastef ak dëggu rek ci lay ne waaye ñàkkul da ngeen seen noonu gis ngeen kooku ngeen seen di sëriñ Alaaji Jóob foo seen sëriñ Bassirou ñaar da nga ko seen mooy xalifa sëriñ Mbàkke Jaara Jóob sëriñ Alaaji mii ngeen seen mu toog mooy xalifa sëriñ Mbàkke Jaara gis nga ko sëriñ Koso mi ngi fi tam noonu bokk ci njaboot sëriñ sëriñ Mbàkke Jaara gis nga ko jëwriñ yi ñoom ñëpp sëriñ Koso mi ngi noonu ak sëriñ euh, Alaaji moomu nag di njabootu ko sëriñ Mbàkke Jaara Jóob kon ñu ngi noonu di ñu sell dangeen ngeen seen nag kooku tam sëñ xaadim la bokk ci moom itam waajuram a ngi fi sëñ Mouhamadan ñoo ñëpp di xale di njabootu kër sëñ Massamba Diop Sam da ngeen seen ba tey mboolem njaboot gi ñi nga xam ne ñoo feggoo ak Cheikh Basirou Diop di rakkam yi ak njaboot gi ñu ngi noonu foofu ci kër gi ak jëwriñ yi gis ngeen siyaar bi noonu mbooloo mu fasantikoo bàyyi ko fu ne ci réew mi biir réew mi ak bitim réew Kajoor ak Bawol eh, ak Ndakaaru fépp fépp Kawlax Ndar ñëpp noonu toog feetu Cheikh Basirou Diop. kon alaaji bayti sëy ñu ngi lay sàkku say kàddu yi barkeelu ci siyaar bii ci Daaru Saam bismillahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi malik yawmi diini iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'iin ihdina siraatal mustaqiim siraatal laziina an'amta alayhim ghayril bokki taalibe yi fi noo ngi leen noo ci barkeb sëriñ Basiir Diop maa ngi leen di nuyu ci barkeb sëriñ Basiir Diop te di leen di leen ñaanal di leen xamal ne kër gii ngeen dugg tey jii mooy kër sëriñ Basiir Diop dem na sëriñ Modou Massamba Diop na leen wóor ni day jëmm ji nga xam ne moom noonu yàlla booleel muy sunu wasila di sëriñ Basiir Diop moom sëñ ma Diop Massamba moo ngi ñaan ci barke Serigne Touba ci barke sëñ Massamba Diop mi nga xam ne bi muy ànd ak Serigne Touba kenn àndul ak moom te barab bu Darou Sam bii tey nga xaay képp ku waxee teg nga fi sab tànk yàlla sëñ Touba jégal na la ci saayir jégal na la ci baatin jëm jiine nga xaay moom la yàlla teg fii tey muy sëñ Basir Diop moo ngi ñaan ci barke Serigne Touba barke sëñ Massamba Diop yàlla ak Serigne Touba guddal aw fanam te wéral ay cëram te eggale ay naalam ci barkeb sëriñ Touba te it ngeen xam ne jëmm la joo xam ne ci man man na maa waat ci téere ni lépp la waaye teg ci loxoom dana ko teg ci loxol sëriñ Touba loolu nag jëm jëwriñ ji mel na bu la ko yàlla joxe nga xam ne loo teg ci loxo mu teg ci loxol sëriñ Touba kon noonu ñëpp war noo góorgóorlu te feddlu suñuy laxasaay te xam ne sëriñ bi rek moo fi ne tey ak ëllëg ndigal rek la déglu di tere rek yàlla buñ ne kenn seen ba ñu ko tere. kon maa ngi fasaale mboolem taali bi boo xaye bi yaa ngi ci biir réew mi ak bitim réew. gis ngeen ko ngeen séen di sëriñ ma sàmba Diop moom Cheikh Mamadou Fadilou Mbacké moom la sëriñ Fallou tudde sëñ ma sàmba waaye moom mii muy ku fonk ab cëram ndax sëñ ma Massamba Diop mii ko tudde te muy doomi Serigne Fallilou na Serigne Fallilou demee woon ak sëñ Modou Massamba Diop ci taxawaay bu rafet ba ak pastéef ba ak ngor ga ak dëggu ga ak doxiin wu rafet wa loolu lay firndeel di ko feeñal ak mboolem ñi fi nekkal Serigne Fallilou di jëwriñu Serigne Fallilou waaye sëñ Modou Massamba mii dundal loolu muy cosaanoon mag ña démb gis nga koo ngeen seen di Serigne Cheikh Mara Diop mooy xalifab Serigne daam Diop sëñ Dame Diop nag moo jëkk a nekk xalif sañ moodu Massamba Diop waaye foo ma sa fekk gis nga kooku sëñ Mouhamadan la moom mooy xalifa sëñ Lamine Diop kii sëriñ Baara Diop la mooy xalifa Baye Sëriñ Diop moom itam tuwaarka la ñoom ñoo ñu toogandoo kenn ku ci nekk yaay sa xalifa kër ga nga nekk kër kër ma kër sëñ Masamba Diop Sam waaye mboolem ñu dend ak nekk ak seeni rak gis nga ko sëñ Talaa ngi noonu kooku sëñ Basiiru Diop la tudd moom itam ñoom ñëpp ci njabootu kër sëñ Masamba Diop da kenn ku ci ne yaa ngi taxaw ni nga war a taxawee doo toogee ni nga war a toogee dend ak taalibe yi di leen soññi ci lislaam di leen soññ ci liggéey ak jaamu yàlla ak dundal sunna kon ñu ngeen seen ñëpp sëñ baara gis nga ko sëñ Basiiru ngi noonu ak mbooleem njabootu kër Seex ba Jóob Saam ñi ngi noonu bokk benn jataay ndax ñoom seen nit ga tax na nangu leen ñaan seen nit ga tax na foo ñu fi toog am néeg bokk nañ fa mën a toog muy ki tudd baay ki tudd mag rak ñëpp mën nañoo bokk benn néeg ndax nit ga ak déggoo ga ak bennoo ga mooy seen toxaay bu rafet bii nga xam macha allah yàlla gën a yàgg gën a jëm ci kanam tan bokk fekkee ko teewee ko kon ñoo ñëpp ni ko sëñ Mamour Diop di rek sëñ Cheikh maara moom ñoom ñëpp tubaarkàlla ñu ngi noonu teew foofu ci jataay boobu أطاب للممرك الأوتان باخ عزني من الشيطان أطاب للممرك الأوطان باخ عزني من الشيطان بدأت بسم الله ورحمن وبالريم المالك الأزمان فتح من سمعته الفتاه لمصطفى سمعته المفتاح بان لكل من له صلاح عن امتداه المصطفى فلاه آيات أحمد حوت كتب من أوها إليهم ذو البرايا والزمن نبينا الماهي مع كل حزن عنا كما هبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو الخدم تسره مني دواما الخدم السلام عليكم بوكي جلدي بوكي طالبي ah xam nañ ni jotaay bii de jotaay karim wax dëgg yàlla bokk na ci liggéey bi nga xam ni Cheikh Massamba Diop ku ne xam ne lii téema woon ak bëgg ma woon waaye day mën nañoo wax ni day sant nañ bu baax ndax nun ñu ko teewe day noo ngi doole sant ci bëggam gii nga xam ni fekkante ni mu feeg ay sëtam yoo xam ni ndax buñ nee sëti Cheikh Massamba Diop Sam sëti Cheikh Souleymane Diop ñoom ñoo jiite taxawaayub jàng ay ñetti junniy kaamil moo xam fu daara ne daara joojee jàngalam ab lim jotaay bi ci biir jumaa ji ci Daaru Sam ñu jàng fi lim yi sakkan kii nga xam ne moo ne ci bopp bi jiite ko muy Serigne Basirou Diop. alxuraan foo nee Serigne Bassirou Diop alxuraan ibnu Seex Moodu Masamba Diop sàmm danañ xam ki nga wax mu jiite taxawaay boobu waaye feggoo ko nag ay Serigne daara ay mbokkam ay rakam ak wëlëreem ak Serigne daara yu ne ci diwaan bi yëpp gox bi wër daaru Sam ñu ràññee ci bu baax kii di Serigne Amdi Diop. nga xam ni setu Cheikh Souleymane Diop mën nañ ne ak setu Cheikh Massamba Diop Sam mu ànd ak mboolem mu nag ay rakam ñu ànd ak Cheikh Basirou Diop jàng fi alxuraan ji sell ji jàng Cheikh Basirou Diop ñoo ngi sàkku sa teew sa seede ci liggéey bu sedd sell bii ngeen def. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. yéen mbokk yi jullit yi fi teew yëpp kenn ku ne ñoo ngi koy nuyu turam ak santam di leen baal wàq di leen jéggal di leen jéggalu di ñaan subhaanahu wa taala yàlla na boole defal njéggal. ak ndimbal ak tawfiix ak sutura ak xéewal ak wér ak mucc ba liggéey bi nga xamee ni eh, dañ koy def ngir jëmmi borom bi subhaanahu wa taala di ko def ngir jëmmi yonent mi alayhi salaatu wassalaam di ko def ngir jëmmi Cheikh Massamba Diop di ko def ngir jëmmi sëriñ tuba te lépp di delluwaat ci Serigne Touba jëf jéegi yéen ji lépp dañ koy defaat addiya li wàcc leexi ngir jëmmi Cheikh Ahmadou Bamba lépp ñi ngi ñaan ci yàlla subhaanahu wa taala yàlla nañ ko yàlla nangul te delloon na ko ci Serigne Touba mu defal nu ko fu ko soob te bu ko bi nangoo bu ko yàlla nangoo joxal na ko Serigne Touba mu defal na ko fu ko soob ñëpp dinañ ci jot. kon nag euh, li ñuy ñaan yàlla na ko yàlla nangu rek te daraje Cheikhul Khadim ndax wax dëgg yàlla kàddu yi sax daanaka kàddu yu cant rek la war a doon ak kàddu yu mbégte ak kàddu yu gërëmaate ndax bis bi moom. kenn defalu ci kenn dara lu ci def rek sa bopp nga ci defal bu ci nit def dara ba jàpp ni defal ko kenn bi lay li si lay lay ilaha li ci nit def rek sa bopp nga ci defal waaw gudd gàtt daal bu ci kenn def dara ba naw ko ndax li li nga xamee ni borom bi subhanahu wa taala dafa wax ni da ngay def maanaam boo defee benn ma dool la ci juróom-ñeent muy fukk dafa nekk benn boobu day nekk sart sart nag ñëpp xam nañ ni. dañ naan balaa lii am lii day door a am lii day am kon bala ngaa jot juróom-ñeent yooyu da def benn bi. kon benn nga def ñu dolli juróom-ñeent kon te benn boobu lu mu rëy rëy bu ko naw ndax boo nawee benn bi da ngaa da ngaa da ngaa xalaatu juróom-ñeent yi la ci yàlla defal te bu yàlla meloon ni yow boo defee benn bari ko kon benn la bu la doon fay ci nangu fay kon benn la lay defal kon boo nawee sa benn boobu da nga da nga bayut xel juróom-ñeent yi la yàlla defal li ñaan daal ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba yàlla bu seytaane dugg yàlla nu ko yàlla nangul yàlla bu yàlla buñ ci gisum bopp ci daraje Cheikh Ahmadou Khadim yëngut yi ak dal yi lii yëpp it ñu ngi ñaan ci daraje Xaadimu Mustafa yàlla bu ci dara génn yàlla yàlla bu ci dara génn yonent bi yàlla bu ci dara génn Serigne Touba ñu ñaan ci daraje Cheikh Ahmadou Bamba képp ko xam ne nii am nga maanaam ndimbalug tawfeex ak tawfeex ak jàpp ndalug teew fi ak ñi amoon yéene bëggoon fee teew ci teewuñu fi ñoo ngi ñaan ci dayu Cheikhul Khadim képp ko ku mën a doon tey ngont mi nga xamee ne aaji ji faju tey ëllëg ak lu nit di am tey ak ëllëg ci di ko baaxale mu di la amal njariñ tey ak ci xëy ak ngont ci ko amee ñoo ngi ñaan ci daje Cheikhul yàlla bu leen dara tee xëy yàlla bu leen dara tee gont lu ënd ak seen sago ak ak maana ak seen bëgg-bëgg ci daje Cheikhul Khadim yàlla yàlla nangu jëf yëpp sant nañ leen gërëm nañ leen buñ fi nekkoon di wax bu subaat mun ne gën a cant mun ne gën a gërëm kon nag lépp delloo nañ ko ci loxol Serigne Touba yàlla na ko yàlla nangul ca fayal na ko mu wasaare ko ci fa Serigne Touba liñ bëgg lépp di yàlla subhanahu wa taala dinañ ko defal kon li ñuy ñaan yàlla na ko yàlla nangul ca joxal na ko Serigne Touba foo ko neex mu jëmel na fa ci rajo Cheikh ay dégg ay déwéni déwén gën nga rafet a fekkin ca lépp loo xam te ànd na fa ànd na fa ànd na fa moom ci ndimbal ak tawfeex ak sutura xéewal ak wér ak jàpp ndal ak wërsëg lu mu leen fekkee ren yàlla doon asakay diwuñ ci doj Cheikh Ahmadou Bamba yomb na yàlla lool oma salik ali lay baasin jërë ngeen jëf ah, waañ wi ngeen seen nag buñ leen nee sati sëñ sàmba Diop sati sëñ ma sàmba Diop soxna Bintoo ngi noonu ànd ak feggoo soxna Musli Diop ak mboolem sati Cheikh Massamba Diop Sam di doomi sëñ ma sàmba joob Sam ak mbooleem kër gi yëpp ñoo toog noonu ni ñoom kat dañuy laxasaayu takku ne ci waañ wi ne ci liggéey bi ah soxna fa daama ngi noonu moom sëñ Abdou Jamil Diop takku ne ci waañ wi fas yéene kenn du leen man ci seen liggéey kër maam gii di Seex Masamba Diop Sam ndax fu góor taxaw nag jigéen war naa taxaw fëyat ga di taxawee la mu mënee kon ñoom itam liggéey bu sell boobu nag ne ci waañ wi ñu ngi ci taxaw tem te mënoon nañu toog fee ñu di leen rang di leen siyaare waaye ñoom dañuy laxasaayu ñëw daaru saam ne ci liggéey bu ñaq ñaqal seen maam Cheikh Massamba Diop ngir lam ñaqaloon Serigne Touba gis nga ko soxna Bintoo ngi noonu feggoog mboolem ay rakkam nag ak mboolem njabootu Cheikh Massamba Diop saam ñu ngi noonu ci waay jami'ahum darajatan wa xulqa taslimu rabbil alamin sarmada ala ajallil alamin ahmada yumnum ni abdillahi xaadal barakaat li sakanaatil asyaa wal harakaat hudaa bil xaasimi nawara sudur tanwiira muujili sumuusi wal budur yanxaadu lil muxtaari man xaadal kiraam له بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاخا وخلد الصفا والوفاخا أمضاه خادت لنا الصلاحا ولم نوى التوفيق والفلاحا حسنا سعادة بمن به الورى خلق من خاد إليه الصورى نفه النبي للخديم كشفا وحبه أغنى الخديم عن شفا أنا الله جميع ما اشتهى عليه تسليما من غير انتهاء كتابه فوق جميع الكتب xam naa ko ngeen seen aji Ndella Wade bu ñu leen ko waxee dafa bokk ci sëti sëñ Masamba Diop sàmm mi ngi fii ci kër maamam ci kër sëñ Masamba Diop gii nag fii nga xam ne sëñ Abdourahim Diop moo dundal kër gi nekk noonu aji Ndella Wade mi ngi noonu toog ngeen seen ci waañ wu mag wii nga xam ni mooy waañu kër Cheikh Abdourahim Diop ci kër gu mag gi mi ngi noonu di séddale ne ci waañ wi kon ku dégg aji Ndella Wade mi ngi noonu taxawaay bu rafet xam ne liggéeyal maamam ndax buñ nee soxna Ndella Wade ni soxna Fat jóob sëñ Basiiru Diop sëñ Basiiru Diop sëñ Masamba jóob Saam kon sa dëkk la ci sëñ sàmb jóob Saam taxawaay bu rafet bii nag mboolem sët yi moom lañ taxawee kon waañu mag waa ngi noonu di waañu kër euh, euh, sëñ sàmb Diop Saam waaye di waañu kër Cheikh Abdourahim Diop. mii xalifa Cheikh Massamba Diop Sam ci kanam da ngeen seen waañu mag bi nga xam ne mooy waañu daayira Mubaarak ngeen ko seen ci kanam. noo ngi fii tey ci Daaru Sam Daaru Sam nag kenn umpalul kii ñu fi fekk si muy Cheikh ma sàmba Sam la mu waxoon leer na naññi waañu firndeel la ko ak di biir jumaa jee alxuraan ja ndax ku ne xam ne ni bernde ak jàng alxuraan di siyaare di gisante saabonte ak bokk loolu mooy bis bi tey di bis siyaar boo xam ne sii ku tedd ki moo ko joxe woon ndigal mag ñoo nekkoon ak Cheikh Massamba Diop Sam waaye ñu ngi taxaw nii ak jëwriñ ji di Serigne Màkka Ba nga xam ne mboolem jëwriñ ñi donga yi mooy Serigne Màkka Ba mii ñu taxawal fii ci waañ wi ndax kat ba yi mi fi bëgg a fàttali Cheikh Massamba Diop moo noon man de sariixa jëmuma aqiixa jëmuma waaye boo demee fa jumaa ja xam ne jaamu yàlla kenn du ca jam waaye boo ñëwee fii fi waañ wi wàllu liggéey di xidma kenn du ki man kon nag sëñ Màkka ba yow yaay jëwriñu mboolem dong yi noo nga lay laaj siyaar bi ak berne yi ñu fi fa yéene waajal ak kem loolu leeral ci bisu siyaar bi sëñ Màkka ba jëwriñ bisimilaay. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu maa ngi sant yàlla di sant yonente bi di sant Serigne Sidi Muxtaar mi nga xam moo fi nekkal Seexul Xadim di sant Serigne Abdourahim ak mboolem njaboot Cheikh Massamba joob gépp ñun nag sunuy wax. dañu koy war a jëmale ci wàllu donga yi nga xam si dañoo féetal ak ñoom li may jëkk a wax nag mooy naa ko daan waxee rek eh, mbooloo lu bari ba du ñu wax ni diw moo ko jiite waaye noonu suñu ànd bi àndaloon boobu danoo bokk jom déggoo di liggéey Cheikh Massamba Diop Sam bu ma waxee ni jiitewu ma ko tam mel na ni ñun ñëpp dañoo àndandoo déggoo di liggéey sëriñ bi ndax ñun ñi nga xam noo féete Touba mënumaa lim jëwri ñi nga xam ne ñoo ko jiite ndax jot gi da ko fi maye waaye mbooloo mu takk lanu moo xamante ne si ni kenn koo ca gis mel ni gis nga ñëpp ndax bu nit nekkee ci Amérique wala Italie wala Afrique te daanaka dañuy déggat waaye mosunoo gisante ñu yëkkat seen koppar dañu ko jox kon mel na ni ànd bi ko jiite ànd bu jublanu noo ngi ñaan na sunu ànd yàlla na ko sëriñ Tuubaa jëmale kanam noo ngi ñaan sëriñ Abdourahim ak sëriñ Bachir Diop ak ñi boole ñëw Cheikh Massamba Diop yëpp yàlla na fi yàgg maa ngi sant nag sama morom mi donga yi ndax bu ñu demee ba sëriñ bi dindu sant ñi di ma jëkk jiite ca kàddu googa seenu déggoo rek la ñoom ñoo baax de ñoom ñoo baax ndax ànd nañu ñaar fukki at mosunoo mosunoo am lenn loo xamante ne sii ni ay réeru suñ mbirum liggéey te ñii nga jóge daaru jóob fenn fu la mbooloo jóge nag lu ci waañ wi te bu nu gisee day kon loola maa ngi koy sant sama morom dong yem sëriñ bi leen boole ak ñoom ndax lépp xam ne sëriñ bi soxla ko ci ñun ma woo wax ma ko ma ànd ak jiw yi nga xam ne dañoo jiite liggéey bi àndandoo mënu ma ni maanaam jiite ma daayira bi dañoo àndandoo rek noonu mbooloo ma àndaloon de déggoo di liggéey sëñ bi lu nu sëriñ bi wax sunu ko bokkee dégg jotal ko ñi ci réew mi ak ñi bitim réew sëriñ bi ne ci amee nu kawe njortam kon noo nga ñaan yàlla nañ ci daje ngërëm sëñ Massamba Diop Samb jërëjëf sant nañ yàlla sant yoon man zanna annahu yumaasilu rasul fala yafuzu inda rabbi bisu gis nga liñ leen waxoon euh, sëñ Abdou Samad mii moom Cheikh Abdou Mbacke mboolem kër yi kenn ku ci nekk teewaay gi ñu leen ci wax gis ngeen ko kenn ku ci ne mi ngi noonu mi ngi teew foofu ci kër sëñ Galas moom sëñ Mbàkke Assu mu ngi noonu teew gis nga sëñ Alaaji mii mooy xalifa sëriñ Abdou jàmmil Diop moom it di ko sell koo xam ni li mu yéene ñëpp yéene boppam la yéene ñëpp foo ko seen mi ngi ciy tey doomu yi di ci dundal di ci dox di ci wax di ko woyofal boppam te des gan fatabaarkàlla kalla na fi bokk gën a yàgg waaye mbooleem rakkam yi mu toogandool ci waa kër sëñ Abdou Jamil Diop ñoom ñëpp ñu ngi noonu Euh, dikk ci bisub siyaar seen maam bi àndandoo di jotaay bu sell boo xam ni euh, Pastef rek moo ko lal ak dundal lislaam ak dundaluk bokk ndax ku ne xam na ni mu ngi doon nangu leen ñaan. koo ngeen seen mooy Serigne Sam Diop xalifa Serigne Abdou Wahab Diop moom it mu ngi teg tànkam ak Pastefam fekk waajanu mu sell wa tegoon muy Serigne Sam Diop mu ngeen di seen muy xalifa sëñ Abdou Wahab Diop. خلق أو يخلق عند ذي الزمن إليه تنوى الأنبياء ورسلها يوما تقدم سواه يغسلها حوى الشفاعة التي أنا عجزها سواه في اليوم الذي الوعد نجزها محمد صلى عليه الله أفضل ما خلقه مولاه نور النبي ازداد ظلاما وازداد زاد ملاما فرقان فرق بيني أبدا xablu wa bayna kulli man lam yambudaa shakartu rabbiya bi nasrin wa nizaam kon da ngeen koo ngeen seen mooy sëriñ Galas jóob xalifab sëriñ Mbàkke Asu Diop moom it bu ñu nee sëriñ Mbàkke da ngeen xam ni sell ga ak pastéef ga nga xam ni moo nekkoon ci waajurum wa sëriñ Mbàkke Asu Diop sëriñ Galas Diop mii pastéef bu rafet boobee la taxawee moom itam nekkoon ak sëriñ Saaliwu ba mu def ci moom li mu def ci moom mu doy sëkk tuwaarka la euh, macha allah da ngeen seen kooku ngi mu dendal foo mu toog muy sëriñ Fallou Diop euh, teewaaleel fi mbooleem njabootu Cheikh Souleymane jóob waaye bu ñu nee kër Cheikh Souleymane Diop xam nañ Cheikh Souleymane Diop ak sëñ Massamba Diop Sam dañoo bennoo woon ndax soxna Astou ma nga xam ni euh, moom moom la sëñ Massamba Diop dëkkool doomam jëdi sëriñ Mbacke Astou moo meññ sëñ Galas mii ngeen seen waaye boo jëmee ba tey euh, kër sëñ mm, Souleymane Diop da nga fa fekk soxna Mati ma Masamba Diop doon taawu sëñ Masamba Diop saam waaye soxna Mati Masamba Diop moomee nag moom itam ba tey sëriñ Gallas sëriñ Fallou Diop moom mu ngeen di seen ci kanam mu def ay témoignages ci teewaay gii teewaale fi mbooleem njabootuk Cheikh Souleymane Diop ak kàddoom yi sell yooyu ngeen di dégg ak pastéefam bu boobu mu fi teewe kooku di sëriñ Fallou Diop moom dangeen ko dégg mi ngi noonu toog ngeen dégg nag kàddoom yi sell yooyu bàyyi ko ci njabootu kër Cheikh Souleymane Diop mi ngi noonu ngeen di seen sëñ Fallou Diop. sëñ Massamba Diop de moo Cheikh Souleymane Diop benn lañu woon ndax Serigne Touba dégg naa ci ni mag ñi waxee de dégg naa sëñ Touba nee na bi ma jotee ci ñoom di ni bëggoon waaye mel ne nañ mel waaw. Euh, jàpp naa itam jaxasoo gi ak bokk gi nii rekk la demee ndax tab sëñ ma sàmba jóob mu jur sama baay kër gii ma ne muy kër sëñ Mbàkke su jóob hmm. doomi sëñ doomi Cheikh Souleymane Diop moo hmm. jur sëñ Mbàkke jóg hmm. kon jàpp naa yi ay bokk lañu jaxasoo nañu te lépp lañu te dégg naa ci sama ci ci ñu nettali ñu ni sëñ Masamba Diop Samb bi mu wàccee liggéey fii maam Thierno moo teew wax nañ ma ne ma yetti jullee de am na ko moom sëñ Masamba Diop lay jël benn dañoo wax ni Cheikh Souley euh, sëñ Issa Diagne la ko ni la maam Thierno teew ni Issa mu ni ko Mbàkke mu ni ko sop soppee sa wëlëree bisimilaay Euh, taxawu ko ba mu taxawee bësal mu ne ana Cheikh Souleymane mu ne ko maa ngi nii mu ne ko sa soppee sa wëllëree te ànd jëm ci sëñ Tuubaa bisimilah taxawu ko ba Cheikh Souleymane Diop àggalee mu daal di ni fii nu toll te bere sëñ Tuubaa fii sëstamay sëñ Tuubaa loolu tàbbi na sam nopp ci dégg mag ñi wax ma ko kon bu ngeen di gëstu bokk gi euh, maanaam nii lay demee tey itam fii nu toll tembe mm. li ëpp ci sëti Cheikh Souleymane Diop mm. sëti muti ma sàmba lañu mm. ci euh, sëti sëti Cheikh Souleymane Diop ah. sëñ ma sàmba lañu ndax muti ma sàmba leen jur muti ma sàmba jur sama baay ngeen seen mooy sëñ Maam Mor Diop moom itam xalifa Baay Souley Diop mi nga xam ni moo jëkk a nekk xalifa sëñ Mor Assou Diop kon moom mii moo fi tooge toogaayu kër sëñ Souleymane Diop ak mboolem kër sëñ Mor Assou Diop mi doon taawu sëñ Massamba Diop te jiitu sëñ Massamba Diop ak mboolem njabootu kër sëñ sëñ Mor Assou Diop ak kër sëñ Souleymane Diop sëñ Mamour Diop moomu ak rakkam ak njaboot ga yàlla lañ fi gën a yàgg lool dañ bokk ànd fi yàgg kalla moom ngeen seen noonu sëñ Mamour Diop. yéen a sëriñ Baara Diop mu toog sëñ Baara Diop moom ngeen seen nag Fatabaarkalla ku baax baax. mooy xalifa sëriñ Mourta sëñ Mourtala Diop sëñ Mourtala nag doomi sëñ sàmba Diop Sam waaye sëñ Baara mii moo dem xalifam ci jamono yal na gën a yàgg nu bokk gën a yàgg tànd wér ku baax la mu ngi fii ci dëkk bi Daaru Sam di faj aajo yi di taxawee di ñaanal ñëpp di taxawee taxawaay bu rafet ci daaru Sam mi ngi nii sëñ Baara Diop. xaadaliyal mutaaru mali min rabbi bi rabbi fan xaada. عبادتي لمن محى الفتونا وخاد لي rasuluna ahmadu xat ngeen seen ah mu toog tubaarkàlla mooy sëriñ Moustapha Diop sëriñ Moustapha Diop nag mu ngi toog noonu gis nga mboolem délégation yi jóge ci yeneen barab sëriñ Moustapha Diop mii mooy xalifab sëriñ Abdou Samad Diop doon ku baax ku passeefu waaye mooy mu taxaw mat sëkk taxawaayam waajur mu sell wa gis nga ko ci sell ga ak bëgg lu baax كون سيد الورى مثل الورى وخددا والنورى سلام رب العرش والصلاة على الذي لا نبي الخلاة ngeen seen moom la naa sëñ bas sëñ bas jaal sëñ basiiru mii nag mooy xalifab sëñ Basiiru Jóob moom sëñ Masamba Jóob Sàmm kon sëñ Muxtaar Jóob mi mu wuutu yàlla saa borom yokki leeram ak mboolem sëñ Fàllu Mariam ak mboolem ña fa nekk sëñ Bas nag mi ngi noonu ca kër ga yëpp kër sëñ Basiiru ku mel ne sëñ Baara ñu naa sëñ Baara sëñ Baara Mariam ak mboolem ña fa nekk ca kër ga kër sëñ euh, kër sëñ Basiiru Jóob yàlla saa borom gën a yàggal nu gën a yàgg seen ginnaaw nu gën a liggéeyal sëñ Tuubaa ndax lii ñu taxawee kër seen kër sëñ sëñ Masamba Jóob Sàmm taxawaay bi rafet na lool bennoo nañu lépp rafet na kon sëñ Basiiru mi ngi noonu kon koo ngeen seen di sëriñ Moustapha Diop moom itam mooy xalifa sëriñ Cheikh Darou Waab sëriñ Cheikh Darou Waab nag bokk ci waa kër sëñ Moustapha Mayaay kër yi xalifa sëñ Moustapha Mayaay di sëñ Thierno Diop gisal ngeen ko ci njëlbéen ga kon kii ca kër ga la bokk mbooleem ak i rakkam ak njabootu kër sëñ Moustapha Mayaay da ngeen seen kooku mu toogandool di sëriñ Alawa Gajaga def na ay leeral yu te témoignage ci sëñ Massamba Diop Sam ak ci kër gi lim ci dund fekke ko te di wax lu si lu leer loo xam ni des na ci mën a jariñu kooku toog tokkun mooy sëñ Moustapha moom sëñ Cheikh Darou Waab. sëñ Alaw Gadiaga ñu ngi lay laaj lenn ci dunduk sëñ Massamba Diop Sam loolu ci mën a ci bés bu bu tedd bi bisimilah. bisimilah rahmaani rahim waaw xam naa ku ñu wax loo moom doo sañ a bañ a wax. maag sëñ Massamba moom li ma la wax bari na ñu ma ko gën a bari si waaye ñi ma ko gën a bëgg moom bëriwul. waaw ndax sëñ Masamba ci ay ay xekkamam ak fullaam am na kook ci kilifa yi dafa mas ñëw naa ko yow sëñ Masamba yaa ngi si yaa ngi si fonk sunna rek di jullee ko war ak nu nga ko dugg sax dana taas ak sëñ Masamba ne ko waaw man de foofu laa nekk ndax dama wuuteeg yow yow bu loolu sëñ Tuubaa doo weesu sembum ñett mm-hmm. tamat bu loolu sëñ biir may dara waaw xam nga moom tontu nañu ko mm. mm-hmm. euh, danaa wax ci li ma Baye Ablaye nettali itam ci xam xam-xamam ak xekmaam benn kilifa gu mag am na waxtaan wax tuddal naa ko waaye tey duma ko tudd waaye ku mag la sëñ bi ci ñu ëppoon xam-xam xool benn téere ba yàgg ñu si baat boo xam ne baat bi dafa yéeme ñu xool xool ne ah baat da du arab sëñ ba xool ko ñu ne ko ah sëñ Tuubaa ko bind mu ne koo mën a bind rek man lu arab xam naa ko waaye baat bi du arab ñu nañ ko wane sëñ bi ñu wan ko sëñ bu mag bi mu ni wax na dëgg de turu ab dëkk la waaye du du bi ñuy wax ko sëñ bi nag mu daal di kontaan nag waxaan naa leen ko man sëñ moom moo ma ci géej gi waaye nag gisatuma gisuma lu ma gën a tooyee bi ma tàbbaleeg léegi gisatuma lu ma gën eh, nam laa def nee ñu bëñ yi da ko daan su ma ne ko on oh, am mool de li mu jël ci géej gi moo tax ñuy wax waaye ngembal tooy rek taxu taxu ñuy wax mm-hmm. waaw mu ne ko masaama koo doon jëlee sa tontu li mu ne ko dama koo naasu mm-hmm. nekkan na koo xam ne ci xam-xam ñiiwu ci kenn am am ñiiwu ci kenn fulla ñiiwu ci kenn barke ñiiwu ci kenn loolu ko yala mayoon mm-hmm. laa wax naa xaas suñu tubaab done dacaa xaasalaat masamba mm-hmm. loolu nag boo ko xoolee ci njabootam gi mu bàyyi itam da nga da nga ci am loo loo loo xamal sa bopp ndax xam naa koo ci xam ne topp na ba kanam ba ba ci di ko wax moom man li ma ci gis bari na waaye gisaguma ko ci maa ngi ñaan yàlla mu jëm kanam itam ndax damay digal itam xale yu ndaw yeeg sama maas gi yëpp di leen xamal ni yàlla leen nattoo mbooloo yàlla comme nattoo mbooloo ñëpp ñëpp day ko defee doo jum duñ jum doo jot duñ jàdd waaye bu ñëpp day wut si la nga daw wut da nga jum jum leen asalaamaaleykum sabak ngeen baal ñu wax jërëjëf bi ngeen séenee Cheikh Abdoulaye Diop moomu di xalifa Serigne Thierno Diop moom sëñ Modou Massamba Diop di ko am passeef ku dundal liggéey waajur mu seeloo Cheikh Serigne Thierno Diop waaye kër Cheikh ma Massamba Diop waaye ngeen seenoon sàng euh, bàyyam bu tedd bi sëñ Basir Diop ci kër sëñ ma Massamba Diop seen magam ji sëñ Cheikh moom sëñ sëñ Cheikh Mara Diop moom sëñ daam Diop waaye mboolem njabootu kër sëñ Modou ma Diop la ko dalee ji sëñ Cheikh Mbacke Diop ngeen seen sëñ am saa ngi noonu toog fi wetam ngeen xam ni sëñ Mba sëñ Cheikh Mbacke yàggu fi waaye sëriñ Cheikh Modou Badar Diop kenn ku ne xam pastéefam ga ak njàmbaaram ga ci kër sëñ Tuubaa moom itam kon sëñ sëñ Abdu Lahat moomu ñu leen wan mu feggoo ke rakkam noonu moom itam di xalifab sëriñ Ceerno Jóob di borom passeef taxawaay yi rafet tubaarkalla sëñ Abdu Lahat Mbàkke moom lañ ko tuddee mi ngi noonu mu yar ko def ci moom lim ci def salaamu rabbil arshi wassalaatu ala alladi la nabi alxulaatu فاذا الخلام ومدادي والجساد في خدمتي لمن كفاني من حساد يسر لي الله بخدمة المكين كل عسير رادوا كن فيكون واجهني الجميل بالبشارة في خدمة المختار ذي الإشارة صلاة ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي الملام زنت لربي مع الماحي سنين عبادة ثوابها مع الأنين غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماه الخدم طاب علي توبة قد غسلت ربي عيوبي بالنبي فانغسلت da ngeen seen sëriñ Galas Diop moomu moom itam sëñ Fall la tudd moom itam di xalifab sëriñ Cheikh Naar waaye mboolem ñoom ñoo ñëpp ñu ngi bokk ci kër sëriñ Moustapha Mayaay ñu naa ko sëñ Modou Mayaay waaye sëñ Moustapha Mayaay moom sëñ Massamba Diop Sam waaye sëñ Galas moomu feggoo ki rakkam ñoom itam ca kër ga gis nga ko bàyyi Cheikh mi ngi noonu féete Ndakaaru ci daayira ba fa nekk di taxawaay bu rafet ca parcelle seen taxawaay di taxawaay bu rafet gis ko mi ngi noonu feggoo ki rakkam fa tubaarkalla sëñ Galas alhamdulilah taxawaay bu rafet ñu ngi noonu jamilu ma fi la yawalu bishra sirran wa jaran li nabil bushra ila nabi wajahtu ma qad aghlaqa baba jahannama wa annan xalaqa xuttu ilal muxtaari maa fataha baabal jinaani wa nan fataha ñoom sëñ Abdou Samad ngi noonu mboolem njabootu ko sëñ Matar Diop sëñ Matar Diop moom sëñ Basirou Diop moom sëñ Massamba Diop Sam moom itam yal na yàlla yokk leeram kookii di jëwriñam di sëñ Abdou Samad feggoog sëñ euh, euh, sëñ Basirou ak mboolem njabootu kër ga ñu ngi noonu kër sëñ moom sëñ Basirou Diop. moom sëñ Masamba Diop Samb xalaba lil ayaana marxil mujtaba wali yaquudu birrida ma yujtaba zabbal ilaahu binnabiyi durra ila siwaaya xaayidan lil birra taabat xayaati binnabiyi lmuntaqa wan xaadali ma waddawu zawtuxa nawaytu sukra maliki ala nabi rahmati kulli aqrabin wa ajnabi xaadali al ilaahu ma bi zahar kawni abdul xadima wa shar sëriñ Seexuna moomu ngeen seen moom itam mooy jëwriñi euh, waajuram di sëriñ Seex ñu naa ko sëriñ Seexum Baye sëriñ Diop Baye sëriñ Diop sëñ ma Masamba Diop Sam waaye sëñ Seex nag sëñ euh, Seexuna nag mi ngi doon sëñ Jili jóob ngeen seen noonu ak mbooleem njabootu kër sëñ euh, Seex moomu sëñ Seex nag ku baax koo xam ni liggéey maamam bi rekk ko ñor waa ñoom ñi toog noonu sëñ Xaadim Diop ngi noonu. fegoo ki mag magam jooju seen ñoom ñoo ngi toog noonu mbooleem mboolem kër Baye Serigne Diop daal boo séenee ñooñu rek ak mboolem seen jëwriñ di sëñ Baara Diop mooy xalifa kër ga euh, Touare Kalla sëñ Cheikhouna ak rakam ñu ngi feggoo noonu ànd ak seen euh, seen waajur wa di sëriñ Baara Diop moom xalifa kër baay sëriñ Diop waaye ñu ngi toog noonu di ñu sell ñu passeefu sëñ moom moomu ngeen seen ñu toog ak moom moom itam moo euh, sëñ maam Bàcci Diop mi nga xam mooy xalifa sëñ Mokhtar Diop ñu naa ko sëñ Mokhtar Tooki moom itam tubaarkàlla foofu lay dal euh, ay njabootam yëpp teew nañ fi moom dafa génn waaye njabootam yëpp ñu ngi ci kër sëñ Jaañ mi di la xamal ne la sëñ Massamba moom de ciy wax rek ne garab la fa nga nekk rek ngay xam waaye la ca des xamoo ca dara ndax sëñ Massamba Diop dama ko jëlee la waaye sëñ Modou ma sàmba ci boppam lu masaan jox nit di su ko gis yaa koy xam waaye sëñ Modou Diop xamu ko keneen du ko xam yaa koy wañ kon bokki jullit yi mbokki taalibe yi ñoo ngi fii fi Daaru Saam waaye ñu ngi jotaay ak nag euh, kilifa goo xam ne si waajur la ci ñun di ñu naa ko baay Cheikh Fat saar waaye Baye Cheikh Fat Sarr duñ guddal sun kàddu dañ ko jox kàddu gi laaj ko ci leen ndax moom kat ku ne xam ne ni waajuram maam Ablaye Diop moo nekkoon fii nekk ak sëriñ ma Diop Sam waaye doon na koo xam ni yàgg naa jege waajuram mu yàgg ko nettali lu bari ci Cheikh Massamba Diop Sam bàyyi Cheikh Fa Sarr mii ñuy jox kàddu gi nag moom li dénk itam ba tey dëkk bi yàlla na gën a yàgg moo yor dëkk bi mooy chef de village bi nga xam ne moo moo moo moo Daaru Sam Daaru Sam euh, li ko waral mooy sëriñ Mor Anta Sali daf daan ñëw fii Sam muy fii penk suñ penk tuuti daan ànd ak euh, daan ànd ak doomam ji wax seexul xaddim di fi fekk si genn góor gu ñuy sëñ Mor Batour Sarr fekk na sëñ ma sàmba jóg daa bàyyi ko nexe jama daan bàyyi ko nexe jama di benn am téere bu muy yër ci sëñ Mor Batour ah, xamante gi nag li ko waral mooy sëñ Mor sëñ Mor Ansari wala réewante woon ak sëriñ Mor Batour ànd sëriñ Touba ñëw fi bi sëñ tubaa gisee sëñ Massamba Diop di yërlu téere bi dafa dem toog ci yoon wa nga xam ne mooy yoonu nexe jama bi nga xamee ne yërlu téere ba noppi sëñ Massamba wàññi ko di dellu fekk sëriñ tubaa toog ci yoon wi mu jóg nuyonteeg moom nekk ko ndongole fuy dal mu ne ko nexe jama mu wax ko téere bi maanaam maanaam mu mu mu xool téere wan ko téere bi mu xool bi mu xoolee. lu ci ne mu laaj ko nuñ la ko waxee mu ne ko waxee nañ ko nii mu ne na ko waxee nangam loolu mooy xamante sëriñ Touba ak sëriñ Massamba Diop Sam bi sëriñ Massamba bi sëriñ Touba delloo euh, maanaam maam Aron Seck delloo Pataar nag la sëriñ Massamba Diop la jóg fekk sëriñ Touba fekk sëriñ sëñ Mor Batour sëñ sëñ Mor Anta Sali bi mu demee laajte sëñ Seexul Xadim ñu won ko néegam fekk nañ ne sëñ Touba bu xëyee day ànd ak maam Thierno day yendu ci àll ba. léegi bi mu ñëwee fekk ñëwan ko nekk sëriñ sëñ sëñ sëñ bi mu ñëwee fekk mu toog ci buntu néeg sëriñ Touba ci toogee ba sëriñ Touba ñëw ne ko ana kii mu ne ko mën a ma sàmb mu ubbi buntu ba nuyoonte mu ne ko ma lu tax duggoo ci néeg bi mu ne ko man de dañ ma noon lu ubbul bu ko ubbi loolu lañ ma yare loo ubbul bu ko ubbi loo ubbul bu ko ubbi mu ne ko loolu de yow bañ koy wax taxawoon ñu koy wax. te loola booba sëriñ sëriñ Tuubaa booba mi ngi nekk tuut tànk ci kër waajuram léegi ca la tàmbali di fanaan ak sëriñ Tuubaa ci benn lal ak maam Thierno ñu bokk néeg bi waaye maam na mi ngi ber lalu bopp loolu sama baay moom ko nettali. ci kër sëriñ ci kër waajuram ca ko sëriñ ca la ko sëriñ Massamba ca la ko sëriñ Massamba Diop wàccee ci tool yi bayu sasam bayu sa ba di sa sëriñ Tuubaa di bayu sasam. te loole te la te lañ nekk ba sëriñ Touba yàlla dogal seexal di am ñu seexal sëriñ Touba sëñ ma Diop ñu seexal sëñ Massamba Diop. bi mu ko bi nga xam ne góor gi daan fekk si wàcc na bu liggéey euh, sëriñ Touba ne ko wattul ma bar boobu sëñ Mor Batour Sarr boobee loolu mooy cosaanul daru Sam. bi nga xam ne benn bis euh, woo na ko nag woo maam Thierno ne ko nu ñett ñi def am ku ci war a wujj suñu borom. sëñ Massamba Diop ne ko du yow du Thierno man mi maa war a dem mu ne ko ah waaw Massamba noonu noonu la noonu leen fi ñëw ne la ñuy delloo yaa ma fi jiitoon maa ji maa fi jiitu Thierno mu daal di waxtaan fa mu ne ko Massamba ban barab mu ne ko man de barab boo ñuy bu ñuy taamu bu ne lañ fay def yaa ko la tax ñu koy taamu yaa ko fay def te man de Massamba de fii lañ ma moomee waaye nag Darou Sam da lañ ma miine muy Kajoor sëñ Massamba ne ko ak ah, kon man nga daal waaj daal di koy ñaanal ñaanal maam Thierno ñu bokk ñëw fii bi mu ñëwee Serigne Touba sëñ bi mu ñëwee maam Thierno bi dogal bi accès maam Thierno toppatoo ko Issa mu ne ko Mbàkke mu ne ko sëñ Massamba dafa am lu mu doon sàkku ci boromam. ba ma ba Mamadou yi ñëw daa tànn ak suñu borom di ko may waaye dafa ñaanoon mu ne ko xam nga lu mu doon sàkku mu ne ko déedéet mu ne ko dafa ñaanoon boromam bu génnee adduna bala ñu ko denc ñeenti xeble mu ràmm ci ay junni yu bokkul ci taalibeem ay téeméeri junni yu bokkul ci ay taalibeem loolu la doon sàkku suñu borom. jaadali al jaamiu bil manaafi'i daani ko isa mun ko mbàkk mun ko barabu ma sàmm ko fa def fekk ma fi ku ma fekkul boo gënee danga day jàng ma jëf wala man boo boo fa ne jàng ma fekk kon sëñ Tuubaa sëñ sëñ ma sàmm sëñ Tuubaa bu jëkk daru sàmm benn تسليم من قبل من الفرضاء على الذي به دفعت الخرداء طاب فؤادي léegi nag ñi ngi dugg nag ci cérémonie bi nga xam ni mbooleem kilifa yi biir réew mi ak bitim réew ñoo teew si foofu nag yi nga ko Cheikh Moustapha moom Sëñ Abdou Khadir di koo xam ni liggéey bi ñor na ko lool ñàkkul da ngeen dégg kàddoom ci biir da ngeen seen jataayam mu ànd ak mboolem kilifa yi ak ñu leen tuddoo leen ci biir waxtaan wi cérémonie baa ngi noonu ci biir baas bi nag ñuy waajal waxtaanu cérémonie bi conférence yi jàll na bernde yi yéen a ngi gis kër gu ci nekk boo fa duggee xam ni ñu ngi màggal cant gi nga xam ne sëriñ bi moo ko santaane woon da ngeen gis kilifa yu tedd yooyu waaye da ngeen gi dégg itam euh, kàddu seere yooyu sëriñ Màkka ba mi nga xam ne mooy jëwriñu mboolem euh, liggéey bi moom itam ñu mu waxtaan fa lu rafet ca waañ wa waaye da dégg kàddu yu sell yooyu nga xam ne sëriñ Fallou Jabaay tënk na ko ci mbooleem daayir yi nga xam ni ànd nañu daayir Mubaarak liggéey bu sell bii ak sëriñ Lukaar mi nga xam ne jottali na kàddu yi mbooleem taalibe yi ci biir réew mi ak bitim réew ak seen liggéeyu sell yooyu ak daayira yi nga xam ni lu mel ni daayira tubaab Peteñ nga xam ne ñoom dem seen liggéey bu sell boobu indi nañ ko ak daayira yi jógee itali ak mboolem France ak bitim réew nga xam ne treize daayira treize nga xam ne sëñ Njoogu Sekk mooy jëwriñ ja indi seen teew si indi seen addiya jógee Italie moom itam ak mboolem ña fa nekk moom itam gis ngeen ko noonu cérémonie baa ngi noonu soxna yi ak mboolem njaboot gi ñëpp a ngi ko teewee biir réew mi ak bitim réew fii ci Daaru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 mbokki jullit yi mbokki taalib yi mbokk yi ñu bokkal lislaam mbokk yi ñu bokkal sëriñ Tuubaa Xaadim Rasuul mbokk yi fi dëkk mbokk yi fi dëkk yéen ñépp ñu ngi leen di nuyu ñu ciy jiital ki nga xam ne moom la sunu boroom def tey ñu di ko xoolee sëñ Masamba Diop Sam muy wuutaa konam ci kaw suuf di Cheikhna Cheikh Abdourahim Diop xafidahullahu wa nazara di ko ñaanal suñu borom tabaraka wa taala defar ko wér guddal aw fanam may ko ak tal ba mu àggale naal yi nga xam ne naal na ko te dara taxul mu naal ko lu dul lislaam ak lu jëmale yoonu sëriñ Tuubaa wi kanam rawatina kër ma Masamba Diop Sam gi nga xam ne moom la yàlla teg tey ci boppu njaboot gi nu tànnoon nag aslëf ci bëccëg bi ci ndigalul waa daayira bi mu di as leeral ci ki nga xam ne moo tax nu daje fi tey waral lu bare bare bare ci yoonu murit muy sàmba Massamba Diop Sam ma sàmba Diop Sam nag danañu tuuti lool ci waxtaan ci te moom day dafa bokkoon ci afraad yi nga xam ne mbiram sunu borom tabaraka wa taala daf koo dëxëñ ci biir sangam ba Serigne Touba nga xam ne doy na la rekk ci jafe gu mu jafe xamle ci moom bokkoon na ci ñi nga xam ne dañoo géeju woon ci xam-xam lépp lu ñu war a xam ñu xam ko ca seen jamono jaaran fa doomi soxna yi daan jaar appliqué woon sariya ba mu mat sëkk jëfandikoo xaqiiqa ba dara desu ca waaye ñu tànn ginnaaw loolu wan lépp gannaaw seeyal seen jëmm ci sëriñ Touba tànn ci moom jëf ju ak wax looloo waral mboolem mag ñu toppoon sëriñ Touba koo ci waxtaane sëñ balay sa nee na waxtaane nga ka ca des waaye ñoom day ñu ëpp ci ñoom bi leen sëriñ Touba duyee ba ñu fees seeni rogalaat jël nañ seeni xalima ñii di tagg sëriñ Touba ñii di kañ sëriñ Touba ñii di njukkal sëriñ Touba ci li mu leen defal ñii di ga ñii di dotti ay leer ci seen cati xalima kenn ku ci nekk di feeñal la nga am ci sëriñ Touba waaye jàmbar gii di Cheikh Massamba Diop Sam yàlla daf koo defaloon li sëriñ tubaa di sotti ci kawam lépp li muy bari bari bari dafa tànnoon téye ko ci biiram téye ko ci biiram ba nga xam ne li ciy feeñ lu yàlla dogal la muy feeñ waaye du bàyyi ko ci aw làmmiñam loola nag la ko waralan pëstéef la pëstéef nag mooy àggale nit ku àgg ku ne fa mu àgg Sëriñ Tuubaa nee na wax la mu an na nafa alal aqaidi laa yantafi uman laa yaqtaqidi nañu xam ne mbir mi bëgg ci la waaye pëstéefit ci la bëgg kese du doy bu àndul ak roy waaye roy kese du doy bu àndul ak pëstéef ndax ki ngay roy te àndul ak pëstéef boo sonnee wàññi sëñ Massamba Diop Samb dafa tànnoon pëstéef ci kër Serigne Touba pëstéefam boobu moo tax mu mayoon ko la gën a jafe muy ngërëmul suñu borom ngërëmul suñu borom moo taxoon yonent yi jóg ngërëmul suñu borom moo taxoon ña leen toppoon jóg ngërëmul suñu borom tabaraka wa taala moo taxoon ñu yónni sallallahu alayhi wa sallam ngërëmul suñu borom moo tax sahaaba yi ko toppoon seeni bakkan des ca ngërëmul suñ borom moo taxoon Hamsatu Abdul Mutalib daanu ca Uhud ngërëmul suñ borom moo taxoon saxaaba yëpp jaay seeni bakkan ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa nag bi mu ñëwee ñi ko toppoon te roye ko ni nga xamee ni noonu la saxaaba yi doon roye yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sëriñ Tuubaa jaglee leen ngërëmam sëñ Masamba Diop Sam ca la bokk parce ba moo taxoon moom sëñ ma Diop Sam sëriñ Tuubaa gaaranteel ko li gën a jafe te mooy taxliyatu ani loxo yóbbi nafsi taxliyatu ani yóbbi nafsi mooy lan kenn ku ci nekk lala tee àgg ci yàlla mooy sa ay bi bakkan waxtu woo jógee dox bi jëm ci yàlla ba ba seen néegee ci misaal sa ay bi bakkan moo lay dellowaat ba fa nga jóge ma Samba Diop Samb nag pëstéefam tax sëriñ Touba jagleel ko ca lam ko jagleel caqalikoo ak sa ay bi bakkan mbokk mi doon wax léegi leetar bi am na ci biir parce que bu boobu moom sëñ ma Diop saam moo ko mayoon mu wax ni man de ba ma gisee ci alquran imalu fa sa yara allahu amalakum wa rasulah booba laa tegan samay jàjji di jëf jëf ju àndul ak wax sëñ Masamba Diop Samb radiyallahu anhu bokkoon ci ñi nga ñi nga xam ne ñoom la Serigne Touba jëkk a wan la mu leen wan ci boppam nga xam ne Serigne Touba. addiyee Cheikh Massamba la nag fii yow ki jàng wax. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf mu jëkk a def mooy dañu daan jaare la mag ña mu jaar fa te mooy jàng alquran. ci anam yam ko war a jànge ba mokkal alquran ci fañ ko daan jaarale ci gàttal xayaatam waxtu yu dunu ko may waaye ñi nga xam ne xam nañ fi xam nañ ni mi ngi ganee jamono ci dëkk bii di nexe jóob ñu di ko wax nexe jama jóob ci waxtu woo xam ne waxtu wu la waxtu woo xam ne ceddo gi dafa fees dell kajoor ci gàttal mu feeñee jamono ci nexej jama jóg ci ñaari waajuru sell yoo xam ne ah, sunu borom tabaraka wa la def na ci ñoom ak jagle waajuramu góor yàgg ngeen koo dégg dañ koy tënk rekk maam sa waa waajuram bu jigéen Fapenda Mbay ci gàttal bi ma ganee jamono waajuram bu góor tudde ko doomu baayam ju ñuy wax Cheikh Massamba Diop ñu gën koo xam ci Massamba Ngoube ab diir mu dal alxuraan ci gàttal diir bu gàtt mu mokkal laxas na ko doomi soxna yi daan defe ànd ak ànd ak waajuram mu sell wa dem fële ca lay xàtta ab diir ci gàttal waajuram bu góor nelaw muy maam sa jóg mu laxasiwaat foofu dellu siwaat ci dëkk bi mu ganee jamono ab diir mu def ni mag ñi daan def randu si ba tollook suñu sowwu muy paleen mu sanc foofu ab dëkk tàmbalee jàngale alxuraan ni ko mag ñi daan defe jàngale ab diir ni ko mag ñi daan defee di jàng di jàngale noo ngi leen di ziyaare di leen sant di leen balwaax te di leen balaax waaw comme ni ko baaxoo def rek bu liggéey ba liggéey bi toll fii ñu lim maanaam dayre yi xëy teew nañu fi tey jii ci Daaru Saam ci le 9 janvier 2006 loolu li ko waral moo di wane rek maanaam ñu yónnee woon seen yónnee agsi na loolu moo waral ñu lim daayira ñi pour leeral xam ni liggéey bépp agsi na kon daayira bi nga xam ne moo fi jëkk tey jii mooy dayre ni xëj paaleen président Ndiaga Sarr daayira Daaru Diop sopp sëriñ Massamba Diop président Cheikh Lay daayira Touba Ndar président sëriñ Fallou Lay daayira Xaasin Sall président Tola Seck président Tola Seck Dahira Ndiaye Boumi président Soxna Ami Diop Dahira Nixi Jama président El Hadji Lay section Darou Khoudoos waaw section Darou Khoudoos bu Serigne Lukaar président Cheikh Beyti Kane président Cheikh Badar Lay dayra bayti kan président Serigne Cheikh Diagne daahira Touba Wërsëg président Seynabou Loum daahira Ndaat Fall président El Hadji Ousmane Fall daahira Ndiaye Thioro président Omar Gueye daahira Daaru Diop sant Serigne Massamba Diop Sam teew na fi daahira Touba Layen président di Laay Lay daahira Kaneen Ndiob président Serigne Moussa Samb dayra tàggaar mbubeen teew na fi présidente Ñaasa Diop ak Maada sëy ak Fati Mbuub da Touba Mirna Diop Modou Ñang ak Xari Lay daahira Njigal Njaay président Serigne Modou Ndiaye daahira Kan Kan président Mbacke Tall daahira Jawaar Lum président Farma da daahira Ngéyeen yi président Ndiaga Gueye ak Awa Sall daahira daahira Ramatu Diop président Cheikh Diop daahira Daru Fanay président Diembay daahira Fanay Lay président Soxna Mati Ndiaye daahira Gàdd Mbarama daahira Dimal Kan présidence président Serigne Bara Lay nu peex président Ndeye Sow teew na fi soxna Bintu Sow Dahira Ngembe Dieng président Serigne Mor Dieng Dahira Njaw Njaw président Khadim Diaw ak Batikan Touba Mariana président Serigne Cheikh lay daayira Touba Jéemul président Khady lay daayira Touba Ndoufane président Mbacke Diagne daayira Njeng Diop président Bara lay daayira Touba Mbaxeen président Soxna Ali Guèye daayira Touba Mbengeen président Aji Ndey Njaay ak Soxna Ka Assane Khoudilum daayira Gëti Ñing président Binta Gueye daayira Sine Makumba président daayira Touba Guy Mbind Waalo président Mbenn Diaw daayira Jambal Gajaga président Moustapha Gajaga Touba Guédiawaye Dakar président Gora Gueye Touba France El Hadj Moussa Lay Koujaan Mbayeen Fatou Diop ak Fatou Dame Lay Ñeer Cissé président Modou Diop Badiane Bët Forage président Soxna Anta Ñang Sancu Jokkul président Ousmane Diop Touba Mbagi Xumma président Mbay Xumma Touba Ndar beneen daayira bu ne ci Ndar encore soxna Fatou Mbeng Touba Kër Jawli Murit Diop Njigal Fall Matulum Ziguinchor Moustapha Lay Njaañ Modou Diagne Cekkeen Seck Cheikh Badar Diop Ndimb Fall Bayti Diop Angaan Diop Dayra Nguy Samba Touba Mbelgoor Magu Seck Touba Taw Fall Issa Fall Touba Ndam Modou Thiam Daïra Thiaroye Gare président Bassirou Gueye Touba Parcelles Assainies Dakar Soda Dieng Touba Thiey Thiey Awa Sylla Lëy Touba Ndiir Dieng Mbacké Dieng Touba Alomga Dame Sall Touba Ndar ba tey Cheikh Khataba Diop Touba Thiawéne Ñaay Guèye Touba Ndoblay Soxna Faati Guèye Daaru Njaay Sala Sekk Tawa Fall Soxna Astu Diop Touba Colobane Dakar nuyu président Bousra Lay Sëriñ Xaddi Sàll Daaru Diop Njawa Jaw ak Ami Diop Touba Taïf président Thierno Diop ak Mati Diop Makka Sarr Gora Sarr ak Sora Diop Thiès Madina Fall Serigne Aliou Loum Miftaahu Nasri Thiès président Serigne Modou Gueye Akassa ak Aji Marème Seck Touba Ñaagaan Aïssa Ndiaye Mbimbu Dior Takha Diop ak Ngagne Gueye Touba Mbour Tefes Serigne Cheikh Sall Touba Thiaroye Gare Modou Ley Touba Sinu Ndiayeen Awa Ley Njum Ngent Modou Sey ak Fadi Kebe Kaolack Moustapha Samb ak waa këram tëgg ndogi Modou Guèye marché Gelaw Dakar Cheikh Sele Ley Touba Mbengeen Fati Pate Seck Rijaalu Leh waa kër Sëñ Cheikh Souleymane Diop président Serigne Fallou Diop Touba Ñukki Pekes Yaba Fall ak Abdou Fall Touba Lëndëmaan Cekka Mbeng Gerle Seck Bintu Birija Seck Njum Fuuta Góora Mbeng ak Kodde Gueye Mbàkke Sey Abdou Wahab Seck xay gu njëng Awa Dieng ak Mbacke Fall Touba Sam Ablaye Loum Touba Cawaan Fallou Gueye Mati Gueye Maguette Gueye ak Mbayang Pen Moubarak Touba Dakar sëriñ Cheikh lañ seen président seen siège nag ci Parcelles Assainies Touba Gombali président Dame Lay Moubarak Pikine tali bu bees Soxna Daba Gueye beneen Moubarak ci quartier ci Castor cité des eaux aji awo bi tey kandala mbeng mbellum gadd afe ibrahima amar bax daar gueye ami sill busra maar amet maar daggaar njóobeen taay moodu njaay kowlax waa kër elaaji baara jóob sooda jóob ak asu mbay touba ca fuuta président Cheikhouna Lay ak daayira mat moom nooree nii bu Cees kon daayira yi ñoo fi teew tey war nañoo mat téeméer daayira ak juróomi daayira seen liggéey agsi na kon ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaan sa borom faj aaju yëpp jàmm ci barkeb sëriñ Massamba Diop Samb asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu àggale yéeneem ba lépp loo xam ne moom la yéene liggéeyal baayam sëriñ sàmba Diop saam ci toolub sëriñ tubaab yi yàlla may ko kartan akuk wér mu def ko nam ko bëggee ten ànd ko ak moom nuyoo boobu buñ ko tegee ci loxoom ba noppi noo koy ñaan ci sunu ñàkk solo nun donga yi mu tegal na ko ci loxol Cheikh Sidil Mokhtar Mbacké xalif général de murit mu jotaleel nu ko fépp foo xam ne sunu làmmiñ ak sunum xel ak sunu doole jotewu fa bu loolu wéyee maa ngi wax ci turu dongo yi nga xam ne ci seenu tur laa sañ a waxe ci tur turu daayiratul mubaaraka bi nga xam ne moom lañ nu boole lu di ci liggéey ci biir kër sëñ sàmba Diop Samb loola nag kañ teg ci suñu kanam mu di sëriñ Màkka ba mi nga xam ne yàlla def na lu ñu ko wóoloo woon ba teg ko ci kanam dongo yi lépp yàlla dajale na ko ci moom mu man ko lool kon nan maasa ñaanal ko yàlla na am ndam ci lu ñu ko wóoloo ba teg ko ci sunu kanam ndax wóor nañ ne bu amee ndam rek nu am ndam ndamam rek kay sun ndam ndax jëwriñ moom mooy présenté ña mu jiitu ca tool ba di dox kon sëriñ maa ngi wax ci saw lépp lu ci génn su lu rafet saw tur rek laa ko waxe kon nag sëriñ Màkka nee na ginnaaw bu mu santee yàlla julli ci yonante bi mi ngi seereel Cheikh Abdourahim Diop mi nuy liggéeyal ci kër sañ ma sàmba Diop ne ko dongo yi ma booleel fakkastaluñu ma bu ndoxaataanuñu ma mosuñoo wax mosumaa wax dara ñu weddi ca dara dañuy seet na mu gën a rafet rek nu maase di ko def nee na loolu sëñ Abdourahim Diop mi ngi la koy seeral ci kanam donga yi nga xam ne ñoom la jiite di ko yor bu loolu wéyee nag nuy nuyu nag kilifa jataay bii nga xam ne yàllaa ko ko sédde ci kaw mu wut ko moom Cheikh Moustapha Mbacke moom sëñ Abdou Khadir yàlla na ko fi yàlla yàggal ak mboolem jabootu Serigne Touba gi Cheikh Moustapha dongay sëriñ Masamba Diop saam yi nu am tey liggéey ci biir waaru sëñ Masamba Diop bi nun ñépp maase nan di la ñaanal ci barkeb sëriñ Touba ak seex Masamba Diop saam seex Moustapha nga yàgg fi te wér lool yaa ngi liggéeyal lislaam di liggéeyal sëriñ Touba ci toolam bi nga xam ne moom la takkan di gëm tax koo dem fu ne tax koo daj lu ne loolee nga ciy liggéey sëñ tubaa yàlla na ko nangu te bu la ko nangoo yàlla na la ko fulal ci ci dara ji sëñ tubaa njabootu ne mooy sëriñ Modou Diop Massamba te jàppale nu lool ci bépp fànn nag dana kim xelam dana jàppale ci dana jàppale ci yéene ak kon sëriñ Bassirou itam noo ngi ñaan ci dara ji sëriñ tubaa ak mboolem njabootu sëriñ Massamba Diop gi yàlla yàggal leen ndax nun kër gi dongo nu ñor sunu bakkan sunu alal sunu doole sunu man-man sunu xalaat lépp jox nañ ko sëñ Massamba Diop Sam duñ ci delloo gannaaw loolu mooy yéenay donga yépp nu dee ñaan ngeen ñaanal nu ci ba yàlla ak yoon sëñ Tuubaa def saa yu ngeen du sox fekk nu mën a jógee fekk nu mën tànk yu nu doxe ak xel mënu liggéeyee ak ñi ak yéen ñi wuyu si war na mën a aqrabu ilayhi min abdil walid kenn ku nekk ci yéen kenn ku nekk maa gën a jege mu xam kon ki woote la tax muy woote xam naa ko ci biir xam ko ci biti ki wuyu si la tax mu wuyu si xam naa ko ci biir xam ko ci biti mu mel ni kenn ku nekk bis bi bisub taatam la bisub taatam la bisub dabu xewal la bisub ngërëm yàlla la

ñoom lay wax seen kàddu mu mel ni kàddu yi jàlloon bi yooyu du salam rek yi nga xam ne mooy jàll mooy jàll tey ndax kàddu yi cant la ak kàddu yi soññiwaat kenn ku nekk fa nga nekk sa liggéey nga yëg ne liggéey bi at mu ne rek duñ ko jëmbalee li war a mooy tàmbaliwaat jëme dem ñuy sant ko waxe woon de presse yëpp yëpp yëpp di sant suñu mbokki soxna yi suñu mbokki soxna yi moom seenu njàmbaare moom dafa mel ni ni muy feeñe ci daayira yi ci joxe feeñ na ko ci liggéey ak mboolem daayira yi donc yëpp fu ñu mën di ci bitim réew ci njiital alxaaji lay ci njiital sëriñ Màkka Ba ci góor ci jigéen soxna Bintu Jóob damaa tudd ñooñu rek ñu mën a yóbbaale ñi ci des ñëpp yi yëkkati kàddu jëlee ko ci le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale l'honorable député Moustapha Cissé mu yabal ma fi tey ma andi nuyoo ak siyaar bu président de la république di monsieur Macky Sall di xamal sëriñ bi comme ni ma ko waxee léegi ci biir ni ko président mi ngi koy nuyu mi ngi koy siyaar mi sàkkuy ci moom ñaan mu ñaanal ko ci yan bi nga xam ne yanu na ko ci réew mi bëgg ko liggéey ci réew mi yàlla ak sëriñ Touba ak Cheikh Massamba Diop mu kattanal ko ba mu àggale yéene boobu ak liggéey boobu tey teew bi dañ ci am mbégte lool ndax fépp fu ñu mën di teew lu mu rëy rëy teew fii moo ñu ko gënal kon ñi ngi nuyu mbooloo mi yépp di leen siyaar di nuyu sëñ Moustapha Abdou Khadr mi nga xam ni tey mooy kilifa jataay ndax lu jëm ci wàllu tël ak wàllu ndox loola état war te daf ñu war ñu def ko fi nga xam ni moom mooy Daaru Sam te ñun dinañ ci taxaw def ci lépp lu ñu man xeex ci ba loolu moo ànd di nuyu Serigne Abdourahim Diop di wax ci kàddoom di nuyu président de la république ak premier ministre ak mbooleem membre de gouvernement Sénégal bi yëpp di nuyu sous-préfet Ñaaxeen di Ibrahima Sarr ak monsieur le maire Ngode maire Ngagne Diouf ak acti sous-préfet Niakhine ak mboolem chef de service yi nga xam ni ànd na ñoom ñoom ak délégation bi nga xam ànd na ñoom ñoom ñëpp ngir teewlu suñu bis bu tedd bi nga xam ni amul dul moom di nuyu ndawul Moustapha Cissé Lo li wax dégg nañ ko rafetlu nañ ko bu baax baax ndax président de la république yónni woon na fii monsieur ku ñuy wax monsieur Diène Faye ak sëñ Cheikh Mbacke Sakho ñu ñëwoon ci jamono yële ci ginnaaw ñu wax ni président de la république moo leen yónni woon ci lim leen yónni woon mooy rek lépp loo xam si day yokk dëkk bi muy juróomi kilomètre yi nga xam ne moo bàyyi ko Tuubé ba Daru Saam te Alaaji Babacar Njaay di nga xam ne taalib Sëñ Amsatu Mbàkke di taalib ko Sëñ Masamba Jóob Saam moom moo foogoon ci doole yi boppam xam ni dëkk bi jafe naa ñëw jamono yooyu mu fab ci alalam defar yoon bii nga xam ni ki lañ mën a jaar ba jàpp ba ku fi ñëw mu mën a jàpp bi yoon woowu la président wax ni def koo bëgg a goudronné mu mu xam ñu wax waxam koo tam ni ko dëkk bi soxla nañ ndoxam mu doy sëkk léegi mu yabal fi ñooñu ñu ne dañ fiy defar benn forage bu mag boo am doole boo xam dañ sotoo bu mag a mag jox dëkk bi ndox ak dëkk yi wër dëkk bi yépp ñu rafetlu ko lool poste santé bi tam moom tabax nañ ko ba def nañ équipement bi yépp li ñu des mooy ay docteurs yu fi faj moo ci des kon loolu ñu ngi sant président de la bi di sant monsieur le maire mi nga xam ne mooy président comité rural bi la ca topp ñu ngi sant Daaru Mubarak ci seen taxawaay ci seen liggéey bu rafet ci Daaru Sam ñu leen di ñaanal suñu borom ñoom jiite ak ñi jiitu ñu topp seen ginnaaw te lépp luñ leen wax ñu taxaw kenn cee war a taxawee ba lépp luñ sumb ci dëkk bi ñu liggéey ko liggéey bu rafet loolu ñu leen ci sant di leen gërëb di ñaar seen taxawaay yàgg lool. ñuy sant mbooleen koo xam ne ñëwoon nga ci dëkk bi ak ku fi war ak ku fi yéene woon a ñëw te mënoo ñëw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu ñoo ngi ci si Daaru ànd ak Abdou Khadre Diallo mi nga xam ne mooy ak maire bu préfet bu Niakhène ànd ak Abdoulaye Gueye mi nga xam ne mooy chef CAD bu Niakhène ànd également ak monsieur le maire de la commune de Gandiou ñëw fii fekk si di le chef de village de Darou Sam mu ñuy dalal ñu koy di nuyu imaamu dëkk bi di nuyu également xalif général bu sëriñ Massamba Diop sëriñ Abdourahim Diop. xalif sëñ Masamba Diop. tubaab bi bu mu sa xalam jiit la sëñ ak karwaas sëñ Bamba ñu ne nañ ko lambar na fetal nañ ko pour sant fetal nañ ko dawme fetal nañ ko gara gara jeewal ahlu badar dafa wàcc wër ko tubaab ni ko doo fanaan gouverneur dañu woon bu ñu yëg seen naa la jël sëñ Bamba sama am ni sa borom ngay jeewal lay fanaan sëñ ne jeewal lay fanaan sama nijaay bismillah mooy kan mooy doomu ilimaanu ilimaan yi mooy kan moom la baayam sopp ko bi mu gënee àddina mu ni kii daal sama mag sama xarit ba sama soppe ba ka xam ni moo doon xaadim rasul 1927 ba 45 kii daal turandoom mooy Seydi Mouhamadou Moustapha Mbacké Cheikh Abdou Khadir jaroo nga Khadim Rasul ñu ko waxtoo lay poñe ñu naa la doon poñe Khadim Rasul moo lay poñe sëñ bi maa ngi laa ziar bu baax Mbàkke balaay di féetali kóllëre sama diggante ak yow lu mbooloo lay rëy bu ma yegsee nga ne ah sama xarit bi yegsi na Mansour Mbaye Daaru Saam nag fi sama baay fi la juddoo waaye lii nu am gannaaw yàlla ak yonent ba kenn mayunu ko ku dul yow làmp yi yaa ko taal ma dikki yoon wi yaa ko xàll forage bi yow la waaye sëñ Moustapha kon ñun yaay suñu péete ñun waa Daaru Saam Mbàkke balaay ca sëñ Massamba Diop kañ la mu mënoon defal na ko Xaadimu Rasuul ki fi jóge barki démb di xalifa bi la mu mënoon defal la ko ñu xam ne ñoom la maasoloon jamono yow nag yaay péete daaru saam te sa bàyyi laaj Abdou Aziz ne ku doo am cër moo tax daaru saam lépp lu nu mënti def ak lépp lu nu mënti nekke soo teewul day mel na kenn teewul waaye mën nga péete de ah, nu tudd Moustapha Mbacké kuy sa baay Cheikh Abdou Khadr kuy baay Xaadimu Rasuul la Xaadimu Rasuul nekkoon maa ngi ci waaye yaa yaa neex a féeteel sëñ Moustapha maa ngi laa ziar di gàttal wax ji ndax Ablaye Mbaye Pekh sama jarbaat bu baax bi wax na li mu waroon wax yépp di ziar xalifa bi bu baax di ko ñaanal naal yi xam ni sunu sëriñ ba si Abdou Wahab naanoon na ko yàlla ko yeggale di gërëm bu baax kii sama ndeyjoor di Babacar Ndiaye di jëkkëru aji neela a di gërëm bu baax aji jaara wàdd mi magu ndeel a di gërëm faatu wàdd mi magu ndeel a wàdd di gërëm Ramatulaay wàdd mi mi magu ndeel a ak di gërëm xaritu ndeel a wàdd yépp ndeel moom rek mënul li déedéet ay gor ñu baax di ay xaritam di ay soppeem di famille am noo koy dimbali ci lépp moom itam mu yenu lépp ku yenu lépp nag xaadimu rasul yenu sa lépp sëñ Masamba Diop yenu sa lépp sëñ Moustapha yenu sa lépp bi ci des waaye sëñ bi waaye làmp yi leer rajo yi di jolli forage bi ndox bi di tuuru waaye sëñ Moustapha du kenn gannaaw yàlla ak yonent ba yow rekk la daaru saam seen péete ngi te nag lépp lu Cheikh Abdou Khadir bañoon Xaadimu Rasul bañ ko sëñ Moustapha bañ ko ba ci Seydi Fadilu ba kii toog di Sidi Maxtaar bañ nga ko ñëpp ñi nga bokkal Mbàkke ñëpp bëgg nunu la wet nunu la yaakaar nunu la ngir yàlla ak rasulullah ak sa baay Cheikh Abdou Khadre Mbacke balaa chef fii laa yebale sama kàddu ndax góor gu baax gu ñuy wax alaaji Lamine Gueye daana wax ni wax bu yàqul ku ca dugg yaa yàq wax wa ca sama jarbaat wax wax wax li mu waroon wax yëpp wax na ko am sa sin la daaru wéet dajeeg ñu toll ci nawet njaboot gi boole seen baat cëbbal sëriñ moosum Modou Massamba Diop Cheikh Modou Massamba Diop Cheikh Modou Masamba Diop bàyyi Cheikh Modou Badar Diop ci ama am sa sin la daaru leen tajee ñu toll ci nawet njaboot gi boole seen baat jëmbal sëriñ Modou Masamba Diop mooy bàyyi Cheikh Modou Badar Diop di sët bu siiw ma namp ngor jàmbar la moom te xam lu war ci gil na sëriñ Masamba Diop am ko day na am am xam ko day na xam-xam moo di jeeju xam-xam sama gaay auzu billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sunu sëñ bi xëy Abdourahim Diop xale bu suñu tàmbi Diop moom waxaat joxoon kàddu naa ko waxal xam naa sax xam naa loo gis di wax ne ni ma ko waxee waaye mënuma nekk defandikoo ndigal sëñ bi mu ne ñu ngi sant bokk yëpp ñu ngi sant taal bi yëpp rawatina ci suñu Moustapha suñu Moustapha cant gi mu ko sant ci xolam laa mi ñu mënul fóor leeral lépp waaye doo ko ñaar sa borom lu aw fanam te yokku wéram barke Seexul Xadiim te ñëla mi ngi sant bu baax nguur nguur bi ndax bëkk démb rek gën woon nañu fi wax ne danañ yokk yoon forage bi loolee ma ne ñu ngi koy séenu am yaakaar li weesu lépp nag sant nañ bu baax ak fajukaay bi tabax nañ ko wàggal yeesal ngeen ko ñu ko ñu faje moo fi des sëñ mu ni ñu ngi sant taalibe yi di leen digal ñu ngi jëfe ndigal bàyyi tere ñi mu war a digal ñëpp loolu la ni digal di jëfe digal bàyyi topp digal sëñ bi mu ni far ya rasulallahi bil ma'rufi tadi wa julli dara bil ma'rufi خذ لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر محمد صلى عليه الله بان لكل عاقل علاه كما بالقاسم نور الانبياء بان لغير الاسياء الابياء كتاب احمد سواه نسخا wa innahu bi xayri lan yunsaxa nabiyuna kitaabu xad akmala maa xablo wa xayru xad jammala taslimu man jalla an ahlin wa walad ala ibni abdillahi afdalil walad arsala man laysa lahu kufuwan ahad محمدا وقد كفانا من جحد فالق صل أبدا وسلما على الذي تقديمه علما نافع صل بسلام الاختتام لو على بدء الكرام والختام نافع صل بسلام الاختتام loo ala badxil kiraami wal xitaam